بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne sunu boroom rek mooy ki ko jagoo nu ngi julli di sëlmal ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waamim xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si waat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim tey di bisab ñaar fukkeel ak juróom ci shahru ramadan al mubarak suñu tafsirul quran al azim ñu ngi yamoon ci laayay ñaar fukkeel ak juróom-ñeent ci suratu muhammad kon tey ñu tàmbalee ci laayay fanweer ba saar wi jeex ñu fàttaliku ni alquran day mooy lool lépp xolub ku gëm yàlla alquran dafay roose xolub ku gëm ba mu tooy ak ngëm ak wóolu yàlla saa boo jigëm yàlla dee déglu alquran wala mu di ko jàng te jariñu ko loola na yëg ni feebar mi ngi ci xolam feebar bi gën a yées ci feebar yi mooy feebar bu dox diggante nit ki ak alquran def jeexintal ci xolam ndax borom bi ni muy dundalee suuf si ci wàccam taw noonu lay dundalee xol ci tudd yàlla te tudd yàlla yépp alquran moo ci jiitu ala bi dikrillahi tatma innul qulub wal quranu afdalu dikr ci tudd yàlla ci la xol di dalee ci la xol di dundee ci la xol di naayee ci lay nooyee te tudd yàlla yépp al jàng alquran moo ci gën a màgg moo tax borom bi di wax ne inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam kon jaadu na téere bi mbokk yi ñu di ko jàng di ko nafar di ko seetlu ak di ko seetantal gis nga nii nuy dajee di jéem di leeral téere borom bi li gën a gaaw ci dëgëral nit ci ngëm yàlla am ca la bokk borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko su fekkoonte ni alquran jii day li gaa yi bëgg lan ca def mooy wàccee ndoo ko benn yoon borom bi mu ne du ma def loolu waaye nii ñu koy wàccee xasbal ayat wal ahdath wal waqaia mu ne ko kadalika li nuthabbita bihi fuaadak wa rattalnaahu tartila nii muy wàccee day tax ngëm yàlla di gën a yokk ndax boo amee bind bu tooy tey ci alquran fii ak nga koy jëfe leneen dellu siwaat fii ak nga koy jëfe leneen dellu siwaat bu yàggee xol bi dafay tooy ak ngëm waaye wa rattalnaahu tartila même jàng ko mu jub te mokk ko sax te mokk jëlandoo ko mënu ko loolu mooy tolloog li wolof yi lépp nan toq toq moo gën a yuréet maanaam nit ki koy jël tuut partout loolu mooy gën a sax ci ab xolam moo tax xam ngeen ni borom bi ku am kàttan la ci wàcceendoo kaamil bi benn yoon ku am kàttan la ci saar wuñ tijji rek mu wàcceendoo ko benn yoon waaye da koy wàccee xas ba xew-xew yi ak njàngale yi ak araamal gi ak daganal gi loola day gën a tax mu sax ci dënnëb aji mokkal ji nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu tooyal suñuy xol ak leeri ngëm ak leeru alquran kon nu ngi tàmbali tey ci jeexintalu suratu muhammad di suratul qital fi borom bi subhanahu wa taala di waxee ni audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
laay yooyu nga xam ne moo jeexal suratul qitaal wala suratu muhammad saar wi borom bi subhanahu wa taala mi ngi ko tuddee suratu muhammad ak wala boog suratul qitaal léeg-léeg nga dem ci téere yi mu nekk suratu muhammad léeg-léeg nga dem ci yeneen yi mu tudd suratul qitaal ñaari tur yépp wér na ci wenn saar wi am na yeneen saarit yu mel noonu donte bariwut borom bi subhanahu wa taala ñu ngi taxawoon ci laaye ji nga xam ne mooy laaye ñaar fukkeel ak juróom-ñeent sunu borom di ñu melal melokaanu naafiq yi mbokk yi ñu xam ni naafiq melokaan wu bon la woo xam ni ci melokaan yi gën a yées ci melokaanu nit la bokk digee woon nañ nag ni insha allah comme xëy na suratul munafiqun soreetut buñ ca yeggee bu soobe yàlla nga xam ni saar woowu borom bi daf koo jagleel naafiq yi insha allahu dees na ci indi ay faram-fàcc yu yaatu ci lan mooy naafiq kan mooy naafiq fan la naafiq sosoo lan la naafiq mën a yóbbee nit ki yan melokaan mooy melokaanu naafiq bañ mën koo moytu waaye nit ki su fekkee tuubul ci naafeq lan moo ko cay fekk yooya faram-fàcce yépp insha allah yaakaar naa ni saar booba gën na caa jekk nga xam ni moom rek lan ko jagleel muy suratul munafiquun bu saar woowa jàllee alquran mbokk yi dafa fees ak di melal naafeq naafeq mooy waajoo xam ni li muy wan nit ñi ak la mu denc bokkut naafiq ci langage sharia mooy koo xam ni day wan nit ñi ni moom kat ku baax la ku jub la jaamukatu yàlla la ku sell la ku bëgg yàlla la ku gëm yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ku bañ lu bon la ku bëgg lu baax la loolu mooy feeñ ci ay waxam mooy feeñ ci colkaam mooy feeñ ci melokaanam mooy feeñ ci ay jëflanteem bal nag day rafetal fa muy feeñee rafetal gu gën a rëy la ne ca biir au contraire que boo xoolee ba ca biiram la fa ne bokkut ak la muy wane ab naafeq du yéefar déedéet yéefar moom wane na boppam gëwma gëwma la mu jeex moom kenn topp ko lu bari lu dul booy dee ñu dugal la sawara mu jeex gis nga boo delloo ci suuratul baqara alxaafid ibni kathir bi muy tafsir saar woowale dafa wax ni toxal nañ jëlee ci mujahid mujahid nee na ci tàmbali suuratul baqara yàlla dafa indi ñeenti aaya yuy wane ni ku gëm yàlla nii lay mel mu andi ñaari aaya yuy wane ni yéefar nii lay mel waaye bi mu yegsee ci naafiq fukki aaya ak ñett la ca wax loolu lim lay wan mooy naafiq ku soof la ku naqaree lijjanti ay mbir la ndaxam ngëm yàlla ak ni mu fooree yemuñ ca lu dul ñett ñett ñeenti aaya rek dem ndaxam yi kéefar ak ni mu bonee ñee ñaari aaya rek lañ ko leeralal mu jeex inna alladina kafaru ñu ni naam mu ni sawaun alayhim andartum am lam tundirum la yuminuun xatama allahu ala qulubihim wa ala samaihim wa ala absarihim gisha wa lahum adabun adim mu jeex ñu dem suñu yoon ñaari aay yooyu rek lañ ca wax te xoolal yéefar ak kéefar ni mu bonee waaye gis nga bi ñu yegsee ci naafiq imam mujahid mu ni borom bi daf cee def fukki aaya ak ñett loolu dalay wan ni naafiq lu bon la naafiq lu soof la naafiq ku naqaree détecté la ndax wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi alaxir wa ma hum bi muminin li ñu wax du dëgg de yuxaadicuuna allaha walladina amanu dañuy naxe de wa ma yaxdawna illa anfusahum mën nañoo trompé ku ne waaye seen bopp la ñuy nax gis nga de di le di di génne ay ay mbóot di wax di wax di wax ba leeral yenn ci yi gën a fës yi nga xam ni ñoom dañ koo mel gis nga boo jógee ci suratul baqara nga ñëw ci suratul nisa nga jóge ca nga ñëw ci suratul ahzab nga jóge ci nga ñëw ci suratu muhammad nga jóge ca nga jëm ci suratul munafiqun suratu tawba nag moom daanaka moom la ñuy bañ moom naafiq yi moom suratu tawba lan bañ ndax saar wa bañ nañ ko dañ ko tuddee alfaadiha mooy saar wi xaawi sutura ndax suratu tawba ci jëmmi boppam nga xam ni melokaan bi mu wàccee dafa raglu ndax amul bismillahi rahmaani rahim te moom rek moo ko jagoo ci kaamil bi waaye dafa indi ay yëf yu xóot yoo xam ni day wane naafeq yi gis nga naafeq yi bi ñu demee nag ba nar a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn aaya nag moo leen dëj ñu toog aaya jooju bu ngeen fàttalikoo tafsiram nañ ko ci suratul ahzab bi ñu commencé di indil jullit ñi ay problème dem ba léegi làqatootuñ xam ngeen suratu tawba daa wàcc xaawi tuuti ci sutura si ah suratu muhammad ñëw xaawi tuuti ci sutura si beneen saar ñëw xaawi ñu commencé nag gis ni comme seen sutura xaaweeku na wala lenn ci sutura si xaaweeku na léegi jaratut ñuy nëbbatuuti xam ngeen kuy def ak mbon ba feeñ da ngay rakkaaju waaye borom bi ni la in lam yantahi almunafiqun walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanugriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila malunin gis nga naafiq yi buñ dajuwut ñu toog bàyyi li nuy def yàlla mu ni dinaa leen détecté ñoom ñépp sëkkatal la ci seen kaw yow yonent bi nga toroxal leen toroxtaange joo xam ni kenn mësta gis junni mel te it suñ paree dëkk bi dootuñ fa dëkkati dinañ génn xam nga aay ji moom dafa tar lool malunin yàlla mu ni rëbb nañ leen toroxal nañ leen alak nañ leen fu mën a nekk gis nga bi laay ji wàccee nag ci lañ commencé tiit commencé di ragal ndax yàlla moom bu waxee la mu wax dana ko def bu ñu seetloo ci seeni melokaan yi tasaaroo ci alquran te lii dama koy def ka isharatin rek ndax laaya ji ko laaj waaye insha allah suratul munafiqun moom fa la gën a mën a leeree sunu borom mi ngi wax ni ñoom de bokk na ci seeni melokaan mooy yuxaadicuuna allaha walladina amanu dañuy jéem a nax yàlla di nax ñi gëm yàlla nax yàlla mënta passé moom mi xam li ne ci sa dënn ngay wan nit ñi lu bokkul nax nit ñi mënta passé nga ñëw trompé leen wan leen ay melokaan yu wuuteeg li nga fas moo tax borom bi wax ne ida raaytakum tuajibuka ajsaamuhum gis nga ni ñuy jekk-jekkalee seen biti boo leen gisee rek ñu yéem la wa in yaqulu tasmaa li qawlihim bu ñuy wax ngistal yay feeñ ca seeni wax ak rëy làmmiñ ga ñuy rëy làmmiñ ak rabb gu ñuy rabb ay wax ba mu jub ngir bu yegsee rek nax nit ñi mu ni faw nga déglu leen waaye ka annahum xushubun musannada koo ci seen ma nga daya di mel ni bant bu ñu wiir ci sàkket yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim ñàkk wóolu seen bopp tax na aaya ju wàcc rek yuuxu gu jëb rek danaan ñun la ñuy waxal loolu mooy ku sàcc toog ci biir mbooloo saa bu ñu tuddee baatam sàcc rek yaa ngi jekk-jekkalu defe ne yow la ñuy wax noonu la naafiq mel borom bi subhanahu wa taala mu ni qaatalakum allahu anna yufaku yàlla na yàlla alak leen fur mënti jëm boo leen waxee kaay leen yàlla jéggal leen akub yonenteem ñu du mooyu parce que du njéggal leen soxla ñoom bokk na ci seeni melokaan mooy dañuy ñaawal jullit ñi gis nga naafeq yi ñoo doon wax naan saxaaba yeeg seen biir yuri yi yaakaar ngeen yéen mën ngeen a gañe seeni noonu yàlla ne leen a léegi yàlla akub yonente ak ak ak ak ak ay aayaam ngeen di saboote bis ni ki tey ay yéefar ngeen bokk na ci seeni melokaan mooy melul nenn nag dañuy suppaliku ñu comme i kàkkatar ah mudabdabina bayna dalik la ila haulai wala ila haula ñoom boo dikkee fekk leen ñu toog ak ñee da nga yaakaar ni ñoom la maanaam mën na noo suppiku ba mel ni kàkkatar ni muy soppeekoo ngir farak ñiñ bëgg a faral suñ paree summi mbubb mañ soloon solaat meneen mbubb borom bi subhanahu wa taala mu ni bokk na ci seeni melokaan ida qaamu ila salaati qaamu kusaala bu ñu jógee jëm ci julli dañuy tayal waaye bu fekkee gis nañ nit ñi nag yurauna naas dañuy ngistal di jekki-jekkal julli gi ngir nit ñi ah diw de moom nangam nangam waaye borom bi mu ne la ca biir xamoo ko wala yadkuruna allaha illa qalila tuuti la ñuy tudd yàlla rafetal julli gi yépp daa fekk nit ñaa ngi leen di gis waaye bu ñu weetee seen biir nekk ñu bon lan ñu salte lan bokk na ci seeni melokaan mooy dañuy découragé loo ñu gëm yàlla te yii may wax yépp ay aayaa ko indi aaya yi bu soobee yàlla benn bu ci nekk bu ñu yeggee ci suuratul munaafiquun danañ ko indi bokk na ci seeni melokaan mooy dañuy découragé loo ñu gëm gis nga boo jugoon di jéem a sell sellalu ak a baax baaxlu nga dégg ñu naan diw ni mu soofee woon day bëri tiitar day dafa defee ni yow da ngaa defee ni da ngaa gën nit ñi nit ñi gënoo leen fekk kàddu yooyu ñuy wax da ngay yaakaar ne ñoom dañ lay dimbali fekk déedéet dañ lay découragé naafeq mooy def loolu ndax mbirum xol mbirum xol la bu kenn dugg diggante nit ki ak xolam ak boroomam an allaha yaxuulu bayna almari wa qalbi diggante xol beeg yàlla moom kenn xaju fa waaye gis nga boo sàgganee tuuti nga commencé diw dafa daayif diw dafa nangam diw diw moom gis nga ko moom kenn gisatu ko su ko defee loolu da ngay yaakaar ne fi ne ak mbaaxam la fekk déedéet ñaari yëf la ci jublu benn ba mooy gàkkal am mbokkam ñaareel mooy yëkkati dara jaam ndax su fekkee ma ngay wax di wane ni waaye diw dafa nangam diw dafa nangam kon la muy wane mooy moom nangam jooja dalu ko fekk ankay ak nifaax la denc ci xolam naafiq nag mbokk yi amul woon màkka walhamdulillah ibni kathir mu ni muhaajiru ni moom kenn nekku ci woonum naafiq waaye bi ñu ñëwee madina fekk fa aws ak xasraj muy ay giir yoo xam ne ñii ay cedd la woon yoon sa salam moo leen wàññi ñee ay juif lañ woon ñee ay chrétien lañ woon ñe maanaam daal mbaboor gi daal di yegg si mbooloo mi ku ne dugg ci ci la naafeq commencé am ka ca gën a siiw gën caa soof gën caa bon mooy abdullahi ibni ulay ubay ibni salul nga xam ne moom ñépp a ko xamoon ca loola te kéemtaanu yàlla gi mi nga xam ni mooy génne lu dund ci biir lu dee doomam di abdullahi ibni abdillahi ibni ubay ibni salul kaana min xiyaari sahabati rasulillah xoolal yàlla li muy def rek ki jiite woon naafiq yi nekk bopp ba nga xam ne jullit ñi saxaaba yi ñëpp a ko bañoon gis nga kooku tooxi doona yi mu def bi ci bi ci gën yi ci gën a simple bokk na ci mooy seen soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ab góor mu ñëw daal di gis gaay yi ne leen ah Aïcha taw Safwaan taw ci àll ah lii de moom dalul sama xel man lii moom wax dëgg yàlla xaw ma kum dal ci seen xel yéen waaye man dalul sama xel li ma ñemee giñ de mooy safwaan xam na aysa aysa xam na safwaan mooy ànd nañ jaalo loolu moo waral yàlla wàcce aay yi njëkk ci suratu nuur fukki laay ak ñett di leeral inna alladina jaau bil ifki usbatun minkum sos yi kàcc yi ñi ko indi mbooloo lañ moo xam ne ci seen biir lañ raaxaloo bu yóbba ngeen xam ko waaye nag aysa jarul ngeen di am leen métti laa taxsabuhu charran lakum bal huwa xayrun lakum bu leen yaakaar ni musiba la waaye ngëneel la ndax ngëneel mënta paase nit ni yow tuumaal la borom nit ñi setal la xam nga loolu kay lu lu neex la wax dëgg yàlla moo tax usayd ibn xudayr bi aaya ji wàcce dane aïcha maa hiya bi awali barakatikum ya ala aba bakar yéen daal lii du barke bi leen yàlla njëkk a wàcceel yéen waa kër abu bakar ndax defoon ngeen ko fi bañ leen di wax ci mbirum yaataar deel julli ñi ba amuñ luñ tiimee yàlla wàcce aayab tiim te aïcha mooy sabab si gis nga abdullahi ibn ubay ibn salul bu bu ñu toppoon taarix di la wax ak nifaaqam ak ñi mu xëcc ak li mu yàqal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga keroog tabuk ma wàññoon gaaya bu ngeen demee ba ngeen dee fa bu ngeen nga xam seen jabar yi góor ñi dañ koy takk mu jeex gaaya daal di tourné Omar ne alhamdulilah bi ñu yàlla seggalee ñu bon ñi ñu wàññeeku ak yeneen ak yeneen ak yeneen yonent bi romb na ko warum mbaam mu ne waaye borom mbaam bu xesaw mi na puus fi waay ak baqataam yi fekk yonent bi lay waxal sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi riir nar a dal ci kawam am ñu dox seen diggante ak moom mu ne ah may wax ngeen di dal ci sama kaw gis nga bu ñu yeggee Madina ñun ñu tedd ne danañ génne yéen ñu torox ñi ñu torox ñi mooy yonent bi ak i saxaabaam ca la muy wax moom ca la doomam giñee woon ci yàlla ni giñ naa ci yàlla ni fii ak toroxalu ma sama baay wala ma rey ko du ma ko bàyyi mu dugg ci dëkk bi ca la dogoone tey moom faw ma rey ko mu dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko léegi jox ma ndigal ma rey ko ndax sama baay la donte saay saay la bëgg naa ko mbëggeel goo xam ni su ma gisee keneen rey ko mën naa am fiiraa ngi jàpp ma ma reyaat kooku kon baal ma reyal ko sama bopp mu jeex yonent bi ne ko déedéet bu ko rey muy waaye lim la wax moom tey këram du fa dugg moom bu soobee yàlla abdullah ibni abdullah ibni ubay ibni salul dem taxaw ci buntu dëkk ba bi bàyyam yegsee mu ne ko yow lin wax ni yaa ko wax yaa ko wax mu ne ko waaw maa ko wax mu ne ko wallahi fii ak seede woo ci kanamu mbooloo mi ne yaay ko torox ki yaay ko alku ki sa laal tey doo fa tëdd te mooy baayam xoolal iman ni muy def iman day dox sa digganteeg sa baay fii ak ba ngay juuyoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jëm kaw jëm suuf doom ji dëgër ci lim nekk ba waa ji nangoo wax ni man maay ku torox ku alku ki yonent bee ku tedd ku foor ki mu doog koy bàyyi mu dugg biir dëkk bi kon daal ci gàttal gis nga kooku li muy saay saay saay saay ak li mu yàq yàq bis bi mu faatoo ndeysaan sahaaba yi am tiis lool ridwanullahi alayhim ajmain ci lañ ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doom ji xam na ni baay ji saay saay la waaye nag njuréel ak njuréel ak baayoo mi ngi ci xolam mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko damaa bëgg nga ñëw jullee sama baay xoolal naafiq mu ne ko damaa bëgg nga ñëw jullee ko ah yonente bi alayhi salatu wasalaam fabu sol mantoom génn dem di ko jullee ji Omar ibn al-Khattab ni ko doo dem saaba yi riir ànd ak moom mu ni ko fii moom doo fi jóge ñu jëm kaw jëm suuf mu weñaaru ci kaw mbu mi ni ko doo def saaba yi dox diggante yonent beeg Omar daan ni ko eh Omar kii yonent yàlla bàyyi ko mu dem Omar ni bu soobee yàlla duma ko bàyyi tey muy julleeb naafiq ah xëccoo bi metti lool saaba yi saax saaxee Omar yëkkati ko fallax fële yonent bi dem bi yonent bi yegsee am na ci riwaaya yi yonent bi daa fekk ñu suul ko sax ba nuppi yonent bi sulli ko solal ko am mbubbam jullee ko jéggalul ko suulaat ko lii ku dellu ci ahkaamul janaïs bu Cheikh Albani ci téere yi gën a suufe di nga ko ca fekk gis nga bi ko yonent bi jullee ba noppi yàlla ni ko istaghfir lahum bu yeboo nga jéggalul leen aw la tastaghfir lahum sa yeboo nga bañ leen a jéggalul in tastaghfir lahum sabaina marra même boo leen jéggaloon yàlla juróom-ñaar fukki yoon lan yaghfir allahu lahum yàlla mooy duma leen baal subhana rabbina al aala yonent bi bi aay ji wàccee xam nga lu mu wax dani su ma wóoroon ni bu ëppee 70 yàlla baal ko yërmande ji dana tax ma dooleel ko 70 pour ñu jéggal ko te xool li mu ko yàqal lépp xam ngeen kii daawul fayantoo xool li mu ko yàqal lépp waaye nag ba jullee ga jàllee jullee na ko nag am na ñuy wax ne jullee wu ko ahankay da koo jullee bi mu ko jullee pare ci la yàlla ni ko nag wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan alxuraan ànd ak omar moo tax omar doon wax naan waafaqtu rabbi fi thalathin man di jàpp naa benn mbir julli ñi jàpp lu wuuteeg loola yàlla ñëw dëppoog man ci lu mat ñeenti yoon am bu ñetti yoon yàlla mu ni ko wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan ku ci deeti bis ni ki tey bul ko jullee wala taqum ala qabri armeelam sax laala mayetul nga taxaw fa keroog bi loolu jàllee ci la yonent bi bàyyee jullee naafiq yi keroog bi loolu jàllee ci la yonent bi waxturu naafiq yi nag xusayfa gis nga xusayfa moom lañ doon wax saaxibu sir rasulillah bu benn waay masaana faatu ñu gis yonent bi intéressé wu ci rek ñu xam ni ci naafiq yi la bokk bi yonent bi faatoo omar danaan bëkk néegam bi ni ko demal nga yërndul ma mbooloo ma boo séenee omar rek nga wooma boo séenee xusayfa nga wooma ça veut dire que bu séenee xusayfa mooy kii du naafiq ndax bu doon naafiq xusayfa du ñëw waaye bu waa ji dikkee mu ni ko ah man de yër naa mbooloo ma gisuma xusayfa de mu ne ah dem leen wa xool ma bu dee ngaan teewu ko man du ma dem waaye foofu li ma bëgg a wax bala ñuy dugg suñu tafsir mooy mbokk yi ñu xam ne naafiq yi ku ne ci ñun dafa war a tiit ci boppam gis nga ki gën a ñàkk sens ci alquran mooy koo xam ne bu ñu koy jàng ba nga naan aay ji ku muy waxal aay ji kan lay waxal ku dul yow aay ji kan lay waxal ku dul yow ak man bu fekkoon du woon yow ak man kon alxuraan ji dee su ko jàng maanaam ki gën a ñàkk sens seytaane gën koo man mooy koo xamante ni bu ñuy wax alxuraan ma ngay feresu te naan moom waxuñu muy sëgg di bàyyi mu jàll feneen fekk yow la ñuy waxal ibni abi mulayka mi ngi nettali al imaamul buxaari di ko nettali nii ndomb dajeeg naag lu ëpp fanweeri nit ci saxaaba yi mbooloo mu bari moo xam ni kenn ku ci nekk daf doon tiit ci boppam naan est ce que bokkul ci naafeq yi omar ibn alxataab benn ñaar ñett mu ñëw kër xusayfa fëgg ko fëgg na ko sax ba fëgg ko guddi xoolal omar ak li ko yent bi wax lépp yaakaar nga ni kuñ ni bu seytaane ne tëll seen la day day ragal ba tourné ku àgg ci maqaama jooju wóoluwul boppam muy laaj xusayfa ndax ci naafeq yi la bokk xusayfa ni ko loolu sekkara bi yonente bi la sallallahu alayhi wasallam omar tëkkoo bàyyi tëkkoo bàyyi bi mu ko lakkalee wit ci la ko dogox omar sonal nga ma waaye bu yow nga xam ni bokkoo ci bis ni ki tey nag ku dul yow du ma ko waxati dara ci la omar doog am dalum xel xam ni bokku ca mbokk yi su fekkee omar mooy am tiitaanga ci boppam jàpp na ni keneen ku dul omar ku nekk fa min baabi awla naafiq nag ci ay melokaanam lenn loolu la ci suñu borom di tudd borom bi mu ni gaa yi de dañoo topp la merloo suñu borom kontaanuñ ci li yàlla di kontaan loolaa waral yàlla yàq seen i jëf ndax ñoom dañoo yaakaar ni li nekk ci seen xol yi ci een ak mbañeel ci ñi gëm yàlla yàlla nee na dañoo yaakaar duma ko génne ahankay danaa ko génne sunu borom ni walaw nashaa'u sunu sooboon ñun yàlla la araynaakahum dinaa la wan naafiq yi fala araftahum di nga leen xam bi siimaahum ci seeni màndarga su ma sooboon man yàlla dinaa la détecteel naafiq yi nga xam leen ñoom ñépp ci ay mandarga yu leer yoo xam ni koo gis rek da ngay xam ni kii ca naafeq yi la bokk waaye nag yàlla defu ko dëgg la yonent bi xamoon na ñenn ñi ci naafeq yi waaye xamul woon ñëpp tamit da bàyyi ci xel loolu aaya suratul ahzab moo koy fane moo koy wane ah soo demee ci suratul ahzab borom baa ngi wax nii am na wa man xawlakum min al arabi munafiquuna wa min xaw wa min ahli almadina maradu ala annifaq ahzab wala tawba tawba surtout tawba yàlla mu ne am na ci ñi leen jege ay dëkk dëkkaan ak ñenn ci yéen ñoo xam ne ay naafeq lañ laa taalamuhum xamoo leen nahnu naalamuhum man yàllaa leen xam waaye baax na sanu adibukum marratayn dinaa leen caw ñaari yoon fii ci àddina ak fële ci àllaaxira loolu aaya jooju da lay wan ni kon am na ci naafeq yi ñoo xam ne yonent bi xamu leen woon sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mooy am ibni kathir mi ngi nettali ci tafsir ba demee ci tafsirul mutawal bi dafay wa indi benn xadis mu ni yonent bi daa xëy benn bis rek taxaw ci kaw minbar bi mu ni kaay leen ma xamal leen naafeq ku ma tudd sa tur nag booy nga jug ibni kathir nee na yonent bi ni diw ci nga bokk jugal mu jug yolla si yolla si daal di génn diw ci nga bokk jugal mu jug yolla si yolla si génn yonent bi di lim di lim di lim ba mu jeex mu ne am na ñu ma tuddul seen tur nag xam nañ seen bopp xam nañ leen daal di nopp wàcc kon am na ci ñoo xam ne yonent bi xamoon na leen sallallahu alayhi wasallam ndax xusayfa ci boppam am na ñu ko yonente bi waxoon boo demee ci siiru alami nubala ibni kathir ibni azahabi bi muy tarjamaal xusayfa dani moo nekkoon saaxibu sirri rasulillah moo xamoon yenn ci secret yonente bi saa sallam yi nga xam ne ñu bari ci saxaaba yi xamuñu ko woon foofu nag foofu nag dama ciy tegtaloo man di leen wax ni ndekete yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam am na ci biir ay saxaabaam ñoo xam ni ah xama xamal na leen lenn loo xam ni ña leen gën sax xamuñu ko loolu nag du ci mbirum sharia comme ni ko chia yi rafida ñu bon ñi di waxee naan yonente bi daa waxoon ali ñoom nangam nag loolu amul sharia lépp loo ci gëm ni yonente bi dafa waxoon ñoom diw te waxu ko ñoom diw weddi nga yàlla weddi nga alquran ndax wa ma huwa ala alxaybi bi danin mooy li ko yàlla ni jottali ko dara manqué wu ci lépp la wax jottali waaye mbirum kii naafeq kii du naafeq kooku jotawut ak sharia ci dara jotawut ak sharia bi maanaam du ab àtte bu bu ci tege suñu kaw ñu naan araam nag dagan na xusayfa amul werante ci ne Aboubacar a ko gën Omar a ko gën Ousmane a ko gën Ali a ko gën waaye xam na loo xam ne ñoom ñett ñëpp yonent bi waxu leen ko woon sallallahu alayhi wa sallam loola nag ah yonent bi moo xam la tax mu def ko comme ni ma leen ko waxee ca ahzab ba mu ne kan mooy ñëw ma yónni ko mu doxal ma mission bii bu dee tàbbi àjjana saxaaba yëpp kenn wuyuwul waxoon naa leen ahzab dafa metti woon trop bu ngeen fàttali ko tafsiru suratul ahzab ngelaw li seddaay bi yeggoon na ci ah da ngay gis sa yaram wi commencé def ay fet-fet xam nga didim léeg-léeg day yegg ci didim foo xam ni sa yaram wi day commencé def ay fet-fet di nàcc seddaay bi gelaw li métti woon na méttiwaay boo xam ni xalaatoo di génn sax ci biti saxaaba yi dañ doon gas ay pax comme ni jaar di gasee pax di ca dugg ngir seddaay bu métti bi bu yent bi waxee loolu ñetti yoon kenn jugut mu ne xusayfa yow laa waxal jugal yow laa war a yónni xusayfa nee na su waay maa ngi jaaxle jaaxle goo xam ni parce que tudd na saaw tur kon xam na ni maa ngi fi te xalaatuma mukk yonent bi naa ma ñëwal ñëwuma mu ne ma daal di boole li ma neex ak li ma naq répp jóg rek déggal yàllaa ko bu yonenteem mu ni bi ma yegsee bi ma yonent bi ne ràll ci digg gannaaw xam nga koy wax ak nit rek tàpp ko tàpp ko nii mu ne yonent bi ni ma ràll ci digg gannaaw demal ma yónn ci Abu Sufyaan nee na sama mbubb mi ma soloon daf maa commencé tàngal dama ko summi allahu akbar xoola saxaaba yaa ngi sedd bay gas di dugg ci biiri pax mu ne bi ko yonent bi laalee digg ginnaaw gi mbubb mi mu soloon dafa tàng da koo tàngal da ko summi maanaam dafa mel ni chauffage lañ ko def nee na bi ma demee ca guddi ga may dox mission bi yonent bi ba xaaji guddi mu ne man sama yaram waa ngi fet-fet dama mel ni ku tàng te nit ñaa ngi bëgg a deekub sedd mu ne li may wan ni lii kéemtaan ak nangu ñaanu yonent bi la nee na bi ma yegsee ne salaamaaleykum wa rahmatullah kenn fayu ma ma yërndu seen ndeke yonent bi mi ngi julli nee na maa ngi bi ma nee salaamaaleykum ba yërndu rek nee na affaire bi dafa mel ni sa waay dañ koo rocc ci man maa ngi commencé waat di kat-kati mel ni sofaas bay daj nee na ma fekk mel ni mbalaan mu nekk ci wetu yonent bi ma sàngoo ko far daal di biddanti lu tax mu biddanti mooy daa yéen doo dox ay ay mission ci guddi gi nee na yonent bi ca la ko yeewoon ni ko xum yaa naw maan nelawkat bi yeewul naaj na nee na ci daal daal di jóg xusayfa moomu gis nga ngëneel yooyu mu am foofu kooku mooy xusayfa waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ko yàlla xamaloon am na ñu ko xamul comme ni mu amee ci yonent yi ñi yàlla xamal ko ñi xamalu ko waaye ibni kathir mu ni bu neexoon sunu borom mu ni ma xamal leen waaye fala araftagum bi siimaahum ay mandarga la ñuy am yoo xam ne da nga leen di détecté koo xool rek mu feeñ ci xar kanam gi nga xam ne naafeq la waaye comme suñu borom defu ko moo lay wan naafeq gu naqaree xam la te it gis nga lor gi naafeq man ci jullit ñi ab yéefar sax mënu ko yow xoolal koo xam ne bu ñuy réñoo réñoo bi lislaam mi ngi ci biir léeg-léeg xalaat ba ñu nar a alak sax boo demee moo ko génne gis nga yow sekkare yi ñuy wax ci jullit ñi moom da koy fekkee parce que doo ko foogee bu ñuy wax ma nga ca xalaat ba ñu dara daaween mooma suñ waxee ba yeggal mu rocceeku ndànk dem xamale ko suñuy noon maanaam lig moo tax gis nga noon bi gën a métti jëflante mooy noonu biir du noonu bitti moo tax wolof yi dañuy lépp ni garab biñ ko rombee ni ko waaw garab yow lu la daaneel ak ni nga rëyee mu ni saab noon daf ma doon fexeel xam ni mënta yegg si ci man mu jafandu ci saam mbokk ñoom ñaar ñu ànd ñoo ma daaneel loolu mooy la xam ngeen ni semmiñ weñ gi kese mënta daaneel garab waaye geneen garab moo nangu ñu gor ko defar ca bantab semmiñ ah bu ko defee mbokkum garab gi moo nangu ñu jor ko bañ ci defaree benn bant roof ko ci bu ñu dóoree rek garab gi daanu mu ni saa mbokk moo dimbalanteeg saab noonu ñu man maa daaneel gis nga tey jii problème yi am julli ñaam ci àddina bi yépp loolu la problème yi julli ñaam ci àddina bi yépp loolu la yéen ñiy suivre information addina bi xam ngeen li may wax gis nga noonu lislaam yi bokk na ci seeni technique yu garaaw yi ñuy def dañuy seet koo xam ni ku foor la ku garaaw la ci jullit ñi ñu fexe ba exploité ko ngir li muy jaar jàllale ci moom lay jaar loolu ma nga tàmbalee ca keroog ba naafeq ya àndeeg juif ya ba may yéefar yi ñu duggee ci seen côté ci madina ngir mën a xeex ak jullit ñi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ku xam taarix xam na ko am na yoo xamante ni ñi ko xam xam nañ ko même bees ko tudd fi mu ne nii tey ci àddina bi am na ñoo xam ne ay jullit lañ siiw lool ñu xam leen ñu am ndombay tànk yu kawe fekk ay pion lañ ci yéefar yi ay pion lañ yu mag a mag a mag ci yéefar yi loolu mooy nifaaq mooy koo xam boo ñëwee ci jullit ñi wane ak ngëm boo demee ca yéefar ya inna maakum ah innama nahnu mustahziun ñi dañuy dof dof lu bàyyi leen ak man rek ida laqu alladina amanu qalu amanna buñ dajee gaay ñu ne ah gëm nañ yàlla ñun ak ñun ak yéen ñoo ñoo bokk mbuus wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu weetee ci seen saay-saaya ah qalu inna maakum ñun kay bu leen ñu wax dara yëg leen ñoo ngi yéen a far de inna maakum mooy ñoo ngi yéen a far innama nahnu mustahziun gis nga ñun ñii amuñu benn amul dañuy dañ leen di nax nii rek ci kaw bu ngeen fàttali ko ci dars yi passé même franc-maçon day dugg ci bunt bi gis nga tey jii ma wax la ko nga xam ko boo ko yëgoon yëg ko tey boo yëgaat ko boo ko yëguloon yëg ko tey wallahi wa rabbil kaabati am na ay nit yoo xam ne tey ci àddina bi ñi ngi yegg ci ndombay tànk ñu siiw ñu xam leen foogee leen loo xam ne ndekete loolu amut ci franc-maçon yi la ñu bokk gis nga protocole yi nga xam ni franc-maçon yi dañ koy def ku jàng seeni livre xam lii may wax bokk na ci ñoom pour ñu ñëw léegi pour ñu am liñ bëgg ci jir ju jullit ñi benn waay boo xam ni ponkal la ci lislaam nga xam ni nit ñaa ngi koy déglu wala mi ngi jiite jiite wala mi ngi jiitam réew wala mi ngi jiite lu mu mën a jiite laa wax gis nga dañuy ñëw ne la mën ngaa nekk ca la nga nekk amul problème waaye nag pour nga s- wa nangu ni franc-maçon nga dafa am benn mooy yàlla boo xam ne da nga koy renouveler chaque année gis nga sa carte d'identité ni muy demee 10 ans nga dem renouveler ko boo ko defut nga am problème mooy yàlla googu at mu jot am na barab bu ñuy daje boo xam ne dañ fay dem nga renouveler mooy yàlla ga mooy yàlla gu garaaw lay doon goo xam ne daanaka mën naa remplacer mooy yàlla yi nga dul def yépp di ko nëbb nit ñi su ko defee googa boo ko renouveler ñu xam ni yow mii yaa nga ca mbir ma su ko defee ñun na demal amul problème loo def ca jullit ña baax na ñun soxlaatul la ci at mi am nañu foor ñoo xam ne noonu la ñuy jëflanteeg ñoom moo tax mën nañoo tromper ku ne waaye nag yàlla moom subhanahu wa taala laa yazaalu yuayidu diinahu wa ansaara diinihi insha allah diine ak ña koy dimbali yàlla du dañ di leen dimbali te it nag lépp lu ñu jéem ngir fexeel lislaam pexe ma dana këpp ci seen kaw bu soobee yàlla loolu ña cay sikk sàkk mooy ñi gëmul yàlla waaye ña ko dul fekkee mooy ñi baax la wul moo tax borom bi wax ne dañuy dépenser li ñu am lépp ci alal waaye bu ñu ko dépenser ba noppi alal jooja moo nar a nekk la leen di toskare mooy yar bi leen di caw ba pare yàlla mu ne ma jiital leen yóbbu sawara ña ca des nag ñun dañoo làqatu faf dañuy wane ne moom ay signe franc-maçon yu mag la ñuy wane da ngay gis koo xam ne dañ di ko may la da ngay nekk kilifa diine sax laa wax yor ay taaliba yu dul jeex nit ñi di la wër di la defal ay lan lay def fekk nga ndam franc-maçon nga maa la ko wax fii ku nekk réew ma nga nekk ca moom nga xam am xam nga li ngay jàng di ko liir ci ay téere du bokk du bokk ak la ngay dund am na ñoo xam ni nit ñaa ngi leen di topp yaakaar leen nga ndi franc-maçon lañ loolu nag du maa ko njëkk a wax sax nag ndax am na ñenn ñoo xam ni wax nañ ko publiquement ci médias yi ngeen dégg ko wala ñenn ci yéen dégg ko façon yooyu mooy yi gën a bon ci ñi gëm yàlla parce que ñoom dañuy teg tànk fële teg tànk fii suñu borom mu ni su ma neexoon ma xamal leen nga xam seeni lim seeni mandarga waaye yàlla mu ne wala taarifannakum bokk na ci li nga leen di xàmmee wala taarifannakum xal seet nga leen a xam fii laxnil qawli ci riij riijal ay wax riij riijal ay wax gis nga naafiq moo kub sàcc naafiq akub sàcc akub def njubadi ñoo bokk kàddu ñoo bokk mbir mi riij riijal ay wax riij riijal ay wax mooy moom li muy wax gëmu ko comme gëmu ko faw wax ji dana ko préparer préparation boo xam ni pour mu ñuy waxal ñu gëm ko gis nga yow bu dee la ngay wax gëm nga ko sa yoon nekkul ci nit ñi nañ ko gëm ak doo ko gëm jottali yàlla nga dem sa yoon waaye nag comme xam nga ni yow li ngay wax d'abord gëmoo ko faw nga def ay fexe pour ñi ngay waxal ñu gëm ko su ko defee dana riij riijal wax ji toog toogal ko jekk jekkal ko ah fàkk fàkkal ko ba wax ji mën a jub ngir ñu mën koo dégg mooy wa id yaqulu tasmaa li qawlihim laxnul qawl saa bu ñuy wax rek da nga leen di détecté xam leen moo tax gis nga borom xam-xam yi dañuy wax ci buntu firaasa al firaasa mooy nit ki góorgóorlu ci ragal yàlla sàmm ay bëtam ba du du xool lu bon wala yu demee noonu borom bi mën na ko may li ñuy tuddee firaasa firaasa mooy nit ki yàlla defal ko leer goo xam ni wallahi mën naa jàkkaarloog naa fekk sa xam ni kii naa fekk lu te kenn du ko wax loolu am na loolu mën naa nekk am na ñu ko yàlla may subhanahu wa taala loolu nag leeru imaan rek moo ko mën a maye leeru imaan moom la yàlla mayoon imam malik rahimahullah siiwee na ko lool sax moo tax bis bi bim njëkk a gisee imam shafii dañu ko jàkk rek xool ko ni kii buñ ko defaree bu màggee kéemtaan lay doon ci lislaam te booba booba daanaka mën naa ni taxul mu demee noonu yu mel noonu moom la yàlla mayoon omar ibn alxataab ñëw na romb sàppe si dem rombaat sàppe si ñëw vae vient tourné mu ni mbooloo mi am na lu ma ci neexut xaw ma nag lu mu doon nag am na lu ma ci neexul allahu akbar fekk ki yonent bi waxoon ni moom moo nar a jiite xawaari ji ma nga woon ca biir mbooloo ma Omar romb tourné dem tourné waat dem ba muy ñetti yoon mu ne xaw ma nag li ma neexut lan la waaye mbooloo mi lu ma neexul mi ngi ci maa ngi dem nag daan dem fekk waa jaa ngi ci biir kon yu mel noonu yàlla mën na koo baaxee nit selon ni muy góorgóorloo ak ni muy jaamoo suñu borom kon wala taarifanam di ngeen xam fii ahdil qawli ci riij riijali wax waaye suñu borom mu ni wallahu yàlla yaalamu xam na amalakum seen i jëf borom bi subhanahu wa taala moom xam na seen i jëf lii nag mbokk yi aaya ji wallahu yaalamu amalakum ab tëkku la de ab tëkku la mooy tey bu ñu wanee lu wuuteeg ak nifaaq te fekk nifaaq moo nekk ci suñuy xol wala iyaazu billah su boobaa yàlla mu ne wallahu yaalamu amalakum jëf yi moom yàlla xam na ko gis nga am na benn teme boo xam ne day segg fii ci àddina sax li yamid allahu alxabisa min altayib teme boo xam day lay képp ku ci bokk rek da ngay rab gis nga yàlla subhanahu wa taala ay malaakaam am nañ ay layukaay yoo xam ne même bu fekkee trompé nga nit ñi layukaay yi mënu leen trompé moom borom bi subhanahu wa taala mu ni ah kon di nga leen xam fii laxnil qawli ci riij riijal ay wax waaye wallahu yàlla moom yaalamu amalakum yàlla mu ni man xam naa li nga xam mooy seeni jëf képp ku jëf te fekk la nga fas ci sa xol ak la ngay dund ak la ngay woote woo bokkul yàlla mu ni man xam naa ko borom bi subhanahu wa taala mu ni wala nabluwannakum dinaa leen nattu nag bu yeboo ngeen xam ko yéen laay waxal wala nabluwannakum dinaa leen nattu xatta naalama almujahidina minkum yàlla mu ni dinaa leen nattu ba ñu xam ñi nga xamante ni ñooy nangoo jihaad ci yoonu yàlla subhanahu wa taala sunu borom mu ni dinaa leen nattu ba ñu xam almujahidina minkum ñi nga xamante ni ñoom ñooy jihaad ah ci yoonu yàlla subhanahu wa taala wassaabirina ak ñi nga xam ni ay muñkat lañ yàlla mu dinaa leen natt ba ñu détecté génn ñi nga xamante ni ay muñkat lañ wa nabluwa axbaarakum dinaa leen natt ci ay xabaar ci ay xabaar xabaar yu yu yu yu senn te warta senn ah xabaar yu siiw te warta siiw xabaar yu am te fekk wérul lu ne borom bi soo tala danañ ci nattu laaye ji bokk na min ayat al ibtila min ayat al ibtilaat fi l quran borom bi subhanahu wa taala wan nañu ni danañu nattu ngir ñu xam almujahidina minkum jihaadkat yi gis nga léeg-léeg yàlla am na yu muy def ibtila la li yamise allahu alxabitha min altayib ngir bu ñu layee lu set li des ca kaw lu tilim li watt wassaabirina muñkat ki nga xamante ni moom muñkat la ñàkk pexe bàyyiwu ko ci yëf yi ñàkk fu mu jëm bàyyiwu ko ci yëf yi bañ a am am lu muy nëbbu tax mu ni naa ko muuree mbubam lislaam bàyyiwu ko ci yëf yi ah am mooy yàlla gu muy bañ mu feeñ bàyyiwu ko ci yëf yi bëgg nit ñi jox ko cër ak orma bàyyiwu ko ci yëf yi waaye day muñ yëf yi lu mu ko laaj mu jox ko ko wa nabluwa axbaarakum borom bi subhanahu wa taala mu ne ma nattu leen tamit ci ay xabaar al imam ibni kathir rahimahullah mu ni la naxtabirannakum bil awamiri wa nawahi dinaa leen nattu ci ay digale di xool ba xam di ngeen defam du ngeen def ak ay tere ndax di ngeen bàyyam wala du ngeen bàyyi waaye xatta naalam méte ñu xam kan mooy xam borom bi borom bi xam na bu yàgg ibni abbas bi muy tafsir aaya dani xatta li naalal illa li naalama ay li nuriya ngir yàlla nee na ngir nun yàlla ñu xam la muy tekki mooy ñu wan jullit ñi ngir ñoom ñu gis ñu xam wa illa sunu borom moom xam na moom gis na alquran nag mooy waxee noonu inna nahnu nazalna zikra wala nabluwannakum mel ni maanaam di jëfandikoo pluriel mel ni mbooloo lay waxal fekk kenn la moom sunu borom subhanahu wa taala sunu borom mu ni inna alladina gaa ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi sunu borom wa saddu an sabilillah ñuy sakk di baare yoonu sunu borom bi ngir bañ nit ñi jaar ca jub sunu borom mu ni wa saaqu rasula ñuy dëngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yonent bi jaaree fii ñu jaar fa ca des min baadi ma tabayyana lakum alhuda ginnaaw boo xam ne njub leer na ci ñoom lan yadurru llaha shay'an ñooñu nañu xam ni mënuñoo wàññi yàlla dara subhanahu wa taala wa sa yuxbitu amalakum yàlla mu ni li ñu def lépp dinaa ko màbb ñooñu mooy ñan mooy gaa yooyu nga xam ni ñoom dañoo weddi yàlla subhanahu wa taala muy benn yemuñ ca waaye dañoo dëngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yonent bi jàngalee ñu critiqué su jaaree fii ñu jaar fa ca des bu nee nii la ñu ni déedéet des am na lu ci des borom bi subhanahu wa taala mu ni ñooñu day te fekk bi ñuy def loolu mbir yi leer na ci ñoom yàlla mu ne lan yadurru llaha shay'an mënuñoo lor yàlla dara wallahi mënuñoo lor yàlla dara xoolal jamono yonent bi ba tey naafeq nga liggéey ca ba léegi réussir agul ba léegi ba tey naafeq naafeq tey la gën a bari de tey la gën a bari maanaam la doon am ci naafeq boo ko multiplier multi milliards yoon mooy tolloog lii am tey ndax yëf yi mbooloo mi lu mu gën a bari rek caay-caay gi di gën a bari xoolal yéefar yi keroog bañ dajeeg yonent bi badar mu caw leen ba ñu saw seen tubéy dem ñibbi ba tey jii ñi ngi def ay pexe li ñu def yëpp ay xuuxalaate la rek xuuxalaate dañuy xuuxalaate rek wallahi xuuxal da dàqul dàqul dàqul jàmbaar gis nga yii ñuy def yii ay menaces yéeg dinañ leen léeg danañ leen léeg di allié ak nangam taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta xoolal li muy xewee ci réew mi da ngay gis menn réew moo xamante ni te kat ay intérêt rek moo cay làqu réew moo xamante ni am na pétrole wala am na nangam pour ñu mën caa jote parce que calcul nañ fi ak 2000 nangam bu ñu amul loolu danañ def nangam ñu daal di jéem a kër yow jéem a bokk bokk lu ah kaay ñu allié wu pour dem wallahi allié ga gëmuñu ko sax yàlla man taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta da nga yaakaar ne fi ne gëm nañ liñ def fekk déedéet qulubuhum shatta xol yaa nga féewaloo ku ne sa intérêt ngay kaas gis nga dalika bi annahum qawmun laa yafqahun laa yuqaatilunakum jamian illa fi quran muhassanatin aw min warai judur xoolal koo xam ne yaa ngi yor ay xeeti arme yu sophistique yoo xam ne mën ngaa toog fa nga nekk sa waay di sànni la ngay sànni te day jàll amoo lu dul sa waay ci suuf sax ñi ma woo wàcc gis nga de wallahi ñi ma woo sax wàcc laa yuqaatilunakum jamian yàlla muy duñu xeex ak yéen de illa fi quran muhassan aw min warai judur daw ba ca ginnaaw miir ba làqatu di sànni bomb la ñuy def gis nga de wala ñu dem ba ca gannaaw ak gannaaw nga xam ne duñ leen seen moo tax xam nga wax dëgg yàlla nag ku sab noon montee li bët moo lay wax fii ngay xool moo tax comme ñun suñuy noon ñoo ñun montee li bët moo ñuy wax li ñuy xool xam ngeen seen image yi liñ leen ciy génneel ak li am dëgg dëgg dëgg bokkul billahi wallahi tallahi nit day jël wenn xeer nekk di xeex fii sabilillah mu wax bismillah wallahu akbar sànni xeer mu explosé nekk bomb loolu moom ay nit nettali nañ ko am na borom xam-xam boo xam ne dafa taalif téere moom ci ñi bokk ci ñi demoon la bokk faf xam nga loolu moom lay sal xabaru kal ayaad moom ci ñi demoon la bokk moom ci ñi demoon la bokk waa jooju mi ngi mi ngi taalif téere bi su fekkee fàttewuma mi ngi ko tuddee ayatu rahman fi jihaadil afghan kéemtaani yàlla yi feeñ ci geeru afghan bi mu ni moom ca ña demoon la bokk di nettali ay yëf yoo xam ni ci ngay xam ni wallahi dëgg ngi continuer nekk dëgg ba tey donte ñi ko topp néew nañ ci ngay xam ni borom dëgg mi ngi dimbale waa dëgg ba tey ndaxte julli ñi ñoo yoon jox rek moo tax gisul dimbal mu bari waaye mbir yi moom fam ne woon jógu fa ñu ko def ne woon ñoo fi newul borom bi subhanahu wa taala mu ni gaa yi nga xam ni dañoo weddi yàlla wa saddu an sabilillah di baare yoonu lislaam di menacer ah boo muuroo fii ñu def la lii ñu alamaan la lii boo defee lii ñu def la la le ah boo génnee fii yar sab sikkim ñu def la nangam di menacé di tiitalaate xam ngeen ab jurit xuux xuuxal tiit xuuxal tiitalu ko parce que gis nga ku gëm yàlla laa yaxaafu tahdida ahadin illa tahdida rabbil ibad tëkku ku mën a doon ci kaw suuf mënu koo tiital déedéet li koy tiital benn tëkku lay doon te ci yàlla lay bàyyi ko subhanahu wa taala gis nga kon borom bi subhanahu wa taala moo def ku gëm yàlla ci boppam moom du ragal déedéet du ragal su ko defee ñoom menaces yooyu ñuy def moo xam yéefar yi la moo xam naafeq yi di ko jaare ci ñoom di dëngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nee nañ jaar fii ñu jaar fa ca des ginnaaw boo xam ne njub ya leer na ci ñoom lan yadurru llaha shay'an yàlla mu ni mënuñoo lor yàlla dara wa sa yuhbitu amalakum yàlla mu dinaa màbb seen i jaamu yàlla màbb seen i jaamu yàlla mooy am na lu ñu baax le waaye yàlla mu ni lépp laay màbb ngir jëf yu bon yi nga xamante ni moom lañ doon def suñu borom mu ni kon nag yaa ayuha alladina amanu yéen ñii nga xam ni moom gëm ngeen yàlla mucc ngeen ci kéefar te it yéen a ngi góorgóor di mucc ci nifaaq yéen ñii nga xamante ni bu yàlla waxee da ngeen déglu atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasula te ngeen topp yonent bi wala tubtilu amalakum bu leen yàq seeni jaamu yàlla mbokk yi aay ji ah mbokk yi aay ji mat naa seetluwaat de ay ji ndig la la de loo xamante ni direct la du indirect dafa leer te joxoñ te jub yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp leen yonent bi bu leen yàq li ngeen jot a def ñetti baata ngi yoo xam ne mbokk yi benn bu ci nekk mat naa taxaw seetlu topp leen yàlla topp leen yonent bi bu leen yàq li ngeen jot a def topp leen yàlla moom xam nañ ko topp yàlla mënta passé imtithaalul awamir wajtinaabu nawaahi topp yonent bi salaa sallam mënta passé ittibaau sunnati wajti wajtinaab ma naha anhu wa zajar lu mu tëkku nga wattandiku saa boo nekkee kuy topp yàlla di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari kuréel yee ñu doon xas yow mucc nga ca gis nga de bi ma waxee ñee ma xasaba yéen nag yéen laay waxal yéen ma bu yoo ngeen góorgóorlu aay ji noonu lay mujj nuru ci làkk bu wolof ñi nga xam ne sib nga leen xas nga leen bañ nga leen sànni nga leen ay ay ay ay bomb yu alko yéen nag moom bu yoo ngeen góorgóorlu yéen nag moom góorgóorlu leen def leen nangam ak nangam su ngeen ko defee da ngeen di mucc aay ji loolu lay nuru kon atiyahu llaha atiyahu rasula ñaar yi mooy tax nit ki mën a mucc ci nifaaq ak kufr waaye mbokk yi wala tubtulu amalakum nag moo ci gën a raglu bul yàq li nga jot a def ndekete mbokk yi doomu aadama dana def ba noppi def nga baax nga yàq loolu lu jar a tiite ngoog mbokk yi kenn ku nekk ci ñun amaan na am nga ci ay mbaax mbaax yoo xam ne yaa ngi rafet njot naan loola moom wax dëgg yàlla góorgóorlu naa ca amaan na sax boo demee sa koor gi ca la sa qiyaam yi ca la sa taraawi ca la sa dem ci alquran ji ca la lépp ca la waaye mbokk yi atiyu llaha wa atiyu rasula wala tubtulu amalakum mbokk yi ku ne xam na ni li ñuy yàq baaxoon na nangam bu ko yàq xam nga ni baaxoon ndax ba mu yàqoo la yàqu def leen ak seetlu bu baax ci téere yàlla bi laa tubtulu amalakum bu leen yàq li ngeen jot a baaxle ça veut dire que nangul nañ ni am nga dara benn ngoog nangul nañ la it ni li nga def baax na nangul nañ la it yàlla fay na la ko waaye li tax fayee ko ko àllaaxira mooy abtal ta amalak da ngaa yàq sa jaamu yàlla yi mbokk yi tàmbalee ko ci iblis mu saay-saay mi di nga jaamu yàlla jaamu yàlla gu foor gu sell nga làq ko fu yàq yéggul iblis yàq loola kenn ci magu salaf yi nee na mën ngaa denc sa jaamu yàlla vingt ans nga xëy benn bis rek yàq jaamu yàlla boobu ndax lan daf lay def loo benn jëf ci jëf yi yàq jaamu yàlla jëlal sarax yàlla mu ne laa tubtalu sadaqaatikum bil manni wal ada seen sarax yi bu leen ko yàqee bu dul woon ak man bu dul woon ak man ñaata ci ñun mbokk yi ñoo yàq seen jëf te fekk loolu la dafa metti dafa metti wallahi dafa metti ku ci mucc yàlla moo la musal abu bakarin siddiq dafa jël ko ñuy wax mistah di saxaaba bu baax yor ko ci këram muy doomu bàjjanam mu di ko dundal di ko teral di ko defal amut lu ko mistah di fayee lu dul waa dëkk bi naan Aïcha da doon njaaloog safwaan safwaan mu ne ah boo demee dëgg la de moom moom gëmul de dañ boo demee rek wala ma wax sax wóoru Aboubacar mer ca lool lu tax mu mer xool kii lim ak lim ko fayee moom laa leen jox misaal li suñ borom li li waajo doon laaj borom xam-xam naa ko est-ce que langage bi alxoon wax ittaqi charra man ahsanta ilay moytul musibay koo rafetal jëme ci moom mu ngi nii xool kii li ñu rafetal ak lim fayee donte nag mistax ci ñu baax ñu la yàlla jéggal na ko tuub na caw nañ ko mu jeex waa Badar moom ñëppay dem àjjana bu soobee yàlla. ñëppay dugg àjjana bu soobee yàlla xoolal loolu lan moo metti woon Aboubacar mooy kii li ma ko defal ak li ma fayee ñu bari ci ñun tey am nañ lu baax loo xam ni sell na ca yàlla amaan na sax yàlla nangul na leen ko waaye abtaluha yàq nañ ko lu tax yow yaa bon yow ku ñàkk ngor nga ku ñàkk kóllëre nga yow yow amul loo may fayee lii te atam yaa ngi fàttaliku bañ tolloo ci nangam nangam nangam maa la nangamoon nangam nangam abtalta amala yàq nga ko gis nga de ah moo ne tey de bu la neexee ma sàkku ci yow lii nga bañ moo ne mas nga koo sàkku ci man ma defal la ko de ab tolta amalak moo ne de ah da nga da nga da nga bàyyiwul xel rek waaye teen bi gënoon na fee diig maabal na saa baag yàq nga sa jëf jaamu yàlla ya maanaam bépp jëf boo xam ne doomu aadama mi ngi ko def ba noppi di bëgg mu feeñ wala bëgg muy siiw wala tëppalihu bil manni wal ada wala boog ngay wax lu moo ne tiitaram bi yëpp damaa ko dimbali ba mu toll fii di yàq nga la nga jaamoon yàlla gis nga de xoolal yu sew sewaan yi nga xam ñun duñ ci bàyyi xel tubtulu amaalak yi mën a jàq jaamu yàlla mbokk yi dafa bari shirk yuxbitul amal xoolal waajoo xam ni def na ci ay jaamu yàlla lu foor lu bari mu feebar sonn ay mbokkam jaaxle woo ko ci bokkaale mu nangu su ko defee jaamu yàlla yi mu defoon yëpp ndeysaan dal di yàqu gis nga de la in ashraku yonent yëpp laa wax la xabita anhum ma kaanu yaamaluun la in ashrakta yow mii sax alquran di wàcc ci yow di yonent bi boo bokkaale yàlla li ngay yàq def lépp ay yàqu bokkaale mbokk yuxbitu jami al amal li nga def lépp lay yàq gis nga benn bokkaale bi nga def nga di ko xeeb continuer dem jàkka ji di astaghfirullah ka subhanallah allahu akbar la ilaha illallah tus nga amatul ci ay jaamu yàlla lépp lay yàq te xam ngeen bokkaale li ko tax a bon dafa mel ni kaasu witub deret ci kaasu ndékki kaayu soow boo ko sottee amul nañ ko nañ du bokkut ak nañ wutaab bi ci soow mi dañ koy sippi sànni déedéet bii bu ñëwee lam fa fekk lépp lay màbb la yaxbatanna amaluka li nga def lépp lay yàq adoom lu mu fa bàyyi mu ni ko déedéet du fa bàyyi dara moo tax wala takuna na min alxaasirin alaxira sax da ngay perte mbokk yi wala tubtalu amalakum mooy bu leen yàq seen i jaamu yàlla dalika bi annahum karigu ma nazala allah ma nazala allah fa axbata amalakum yàlla mu ni ñii ñoom dama màbb seen jaamu yàlla deseetuñ dara dama leen saisir amul dara lu mu def mu ne bi annahum karihu ma nazala allah parce que yàlla dafa yoonal ba noppi li yàlla yoonal neexu leen mbokk yi man ak yéen kenn ku nekk na natt min alifi sharia ila yaa sharia mbaa amul benn jaamu yàlla bu yàlla yoonal ba noppi nga am ca ñaggi-ñaggi xol su boobaa sa jaamu yàlla yi day yàqu de jaaduwul ci ku gëm yàlla ku góor ak ku gëm yàlla ku jigéen bu yàlla ak yonent bi nee nii la an yakuna lahumul xiyaratu suwaa sax doo ko am maanaam man sama suwaa lii la déedéet yow kenn laaju la sa choix l'islam kenn laaju la sa choix kenn laajoo noo ko bëggee loolu sa mbiri àddina la waaye yàlla ak yonent bi bu ñu yoonalee ba noppi la ñu yoonal wa yusallimu tasliman yàlla ni nga ko waxee noonu la yonent bi ni nga ko waxee noonu la ñu romb jàll gis nga de borom bi mu ni wala tubtulu bu leen yàq amalakum seeni jëf te foofu nag loolu ka ishaaratin la ab junj la waaye yeneen yi yàq jaaf jëf di ay jaamu yàlla bari na lool yàlla borom bi musal nu ci jëf ju yàq mbokk loolu dafa metti de aamilatun naasiba lëggéeyal lëggéeyal lëggéey ba ku la xool xam ni yow mi sonn nga ba pare tas laa naaral xaamiya dee tàbbi sawar la ko waral mooy dangaa def lun la def loo wut kon kay fay du la fay waaye da ngaa def lan la def loo ba noppi avant ñu koy déposé nga yàq ko loolu mooy ibtaalul amal mooy yàq say jaamu yàlla gis nga doomu aadama lépp loo xam ni def na ko ci ay mbaax mbaax wattul seytaane di la di la ko wax loo léeg-léeg sax nit mën naa rëccile juum sax wax ko waaye jéggalul yàlla subhanahu wa taala di fexe di nëbb say jaamu yàlla surtout nëbb loolu bokk na ci xam nga ko ku am problème nan laay nëbbee samay jaamu yàlla xam ngeen doo am problème mu problème di feeñal nit ñi di feeñal ci nit ñi ñun ku say jaamu yàlla feeñ nga kontaan parce que loolu lañ gën a bëgg kon kooku xam nga du nëbb du yàq nëbb ay jaamu yàlla waaye kenn ku nekk dafa war a góor-góorlu fexe di nëbb ay jaamu yàlla loola bokk na ci li koy musal ay jaamu yàllaam du yàqu borom mi mu ni inna alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi suñu borom wa saddu an sabilillah ñuy baare yoonu yàlla def ay pexe pour l'islam du jàll summa maatu ñu faatu wa hum kuffaarun te fekk ay yéeféer lañ fa lan yaxfir allahu lahum yàlla mooy duma leen baal mukk ba faw xam ngeen ñi jàng luuxa xam ngeen lan ak lam ah ñi jàng naxu xam nañ ni lan la muy liggéey moo gën a dëgër gën a soxor lam di liggéey ah lan ci boppam saa buñ ko dugalee ci baat mooy lii du am te même buñ demoon ba ca kanam ba faw du am lan nag moo ko gën a oyof lan saa buñ ko jëfandikoo moo lay wane ni gis nga lii tey amul même bu ñu xaaroon fii ak cent ans ca kanam it mbir mi du am li tabiit ba faw la falan yaghfir allahu lahum amul fu nuy jaar ba ma jéggal leen yàlla mooy du ma leen jéggal yéeféer boo xam ni day baare yoonu yàlla di def ay pexe pour daaneel lislaam mu dee ca kéefër ga mbokk yi seetlu leen aaya bii nga xam ni yàlla subhanahu wa taala ku bari yërmande la xool lim def li muy bon bon bon bon bu tuuboon balaa muy dee mu jéggal ko ndax su ma maatu woon ko faar jee tax mu dee ca mu dee ca ji da nga cay déggee ni kon ndeke waa ji li muy def lu mu bon bon bon bu ca déewuloon suñu borom baal ko moo tax doomu aadama war a góorgóorlu bu baax ci yeesal ay tuubam balaa koo dee di bett summa maatu wagum kuffaar charte adamul qabul ah mooy an yamuuta wala an yamuutu wahum kuffaar mooy dañuy faatu fekk ay yéefar lañ suñu borom ni falan yagfir allahu lahum yàlla mooy duma leen jéggal mukk seeni bàkkaar ñooñu moom ak nuñ mën a def ak kuñ mën a àndal màbb naa seeni jëf te it duma leen jéggal man yàlla subhanahu wa taala borom bi mu ni fala tahinu bu leen doyadal seen bopp fala tahinu bu leen doyadi wa tad'u ngeen di woote ila silmi ci jàmmoo wa antumul aalaw na te fekk yaa fa yaa fare kaw yaa ëpp doole yàlla mu loolu bu leen ko nangu gis nga ku gëm yàlla même yow personne bi yow kese nga xam ne nekkul mbirum jullit ñi yonent bi sa sallam dañu jullit du doyadal boppam gis nga léeg-léeg nga def yenn xeeti jëf yoo xam ne day nuru da ngay mel ni kuy ngistal wala ngay wane sa bopp fekk du ko de da ngaa fonk sa bopp yooyu nag di xaaq la ci ay masail yu mat di bàyyi xel léeg-léeg doomu aadama day am luy nuru bari tiitar fekk du bari tiitar de fonk sa bopp la am luy nuru ngistal fekk du ngistal de sàmm sa honneur la yooyu nag dañoo jege yoo nii seex xàmmee leen yombul yàlla mu ni bu leen doyadal seen bopp ab julit doyadal boppam ibni kathir rahimahullah mu ni jamono boo xam ni yéen a ëpp doole yéen jullit ñi jàmmoo moom bu leen ko woote waaye nag suñ demee ba ñu ëpp leen doole man ngaa woote ci jàmmoo parce que dañ laa ëpp doole waaye bu dee yow yaa ëpp doole ba nag di wàccaat déedéet gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ko yéefar yi ne màkka moom ren doo fi dugg ñu jëm kaw jëm suuf ñu ne ko doo fi dugg xanaa déwénat sahaaba yi fittaxoog di xataraayu yonent bi ni leen sawaay ñun buñ dugg màkka nañ tourné dem booba gars yi ñëw dëkk-dëkk bi ñee ba ñuy ñëw xeex taxuloon a jóg muy benn yoruñu ay ngànnaay muy ñaar mbooloo mi néew na muy ñett ñee ay saay-saay lañ muy ñeent seen dëkk lañ leen fekk te foog ki fekk ci këram mën na laa bett yii yëpp bu dajee yàlla xam na yonent bi xam na moo tax yonent bi def lam def gis nga bariwaana mawaqif yoo xam ni jullit ñi dañ cay doxale luy nuroog ragal fekk du ragal déedéet waaye xam la ab jullit ci boppam moom la yàlla dul nangu muy woote toujours ay kaañ jàmmoo kaañ déedéet jullit moo war a gën a bëgg jàmm nag waaye jàmmoo guy nuru ak tapet déedéet fala tahinu waaye bu leen doyee di wa tadu ila salmi wa antumul aalawna boo demee ca fa suñu waram deexee wa in janaxu li salmi fajnax laha bu dee ñoom ñoo la woo ci jàmm nag xam nga yooyu bokkul wa in janaxu li salmi buñ la wooyee ci kaay ñu jàmmoo te ñoo la woo ñoom fajnax laha fekk leen ci wa tawakkal ala allah nga wakkilu ci yàlla waaye du caage ni saa buñ la wooyee ci jàmmoo it nga jàmmoo de du caage ni saa buñ la wooyee ci jàmmoo nga jàmmoo ndax léeg-léeg ñu woo la ci jàmmoo fekk kalimatu xaqin urida biha albaatil am na lu làqu ca gannaawam kalimatu xaqin urida biha albaatil ay mbir yu bare bare yoo xam ne yéefar yi mën nañ ko def fekk pièce ndëgg sërëx la ñuy lalal jullit ñi moo tax ku mel ni xaalid moom alhamdulillah yàlla dimbali na ko dund na ba faatu dugg ci ay xuruub kal laythil baariz te kenn musu koo trompé ci bunt bi parce que dafa amoon xibra ci bunt bi moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ni guerre bu Xaalid jiite Amr ibn al-Aas di ko xelal bu soobee yàlla gañe maanaam bépp technique bu jëm ci wàllu guerre ak xeex Xaalid da koo xamoon waaye gis nga lu jëm ci ñorante nag ñorante ñor xom amr ibn al aas moom kéemtaanu suñu borom la ci buntu boobu man xool naa ba tay ci addina bi waaye kooko intellectuel boo ko mën a gam-gam leen fii qadimi zamani wa xadithi zaman gisuma ko amr ibn al aas dafa yewu woon ñor muus ba nga xam ni xel mi dafay taweeku comme fet moo tax mawqif bu jullit ñi am ñu jaaxle rek dañ naan woo leen daahiyatul arab woo leen daahiyatul arab muy amr ibn al aas gis nga am na benn waay boo xam ni ki gënoon a muus ci romain yi la bokk ñuy wax artabuun gis nga artabuun amr ibn al aas da koo nax-nax boo xam ni seen waa dëkk yépp a ci jommi lu waral loolu parce que ñoom seen waa dëkk jàpp nañ ni kii moom addina bi kenn mënu koo nax waaye bi mu dajeeg amr ibn laas amr da koo nax nax boo xam ne maanaam ñoom seen waa dëkk ci moom dañoo jommi kii fan la xelam newoon bi ko amr ibn laas di nax te it nag nax bu dagan la ndax xam ngeen alxaar bu xudaa yent bi nee na guerre kay moom naxante rek la tàndarante ay pièces rek ba am li nga bëgg léeg-léeg ab julit mën naa def ay pexe wallahi même bu nekkee ku néew doole ba yàlla may ko ndam gis nga salamata ibn al akwa salamata ibn al akwa dàq na waa dëkk ab mbooloo moom kese moom kese waaye cim xel rek moom daal day jékki-jékkam yàgg rek kolon kolon yëngal ay affaire riiral ba gars yi yaakaar ni ñi nekk fii lee ñu bari mu ne eh jaaral ko tabale kojal eh mu ngi ne la fekk moom rek moo ànd àndut ak kenn kenn di leen dàq di leen dàq di leen dàq ba seen dëkk mu tourné xam nga moom laay wax ni gis nga jullit boo yeewuwul gis nga boo yeewuwul dañ lay yeewu faf nag sax faf ñaata ci ay jullit ñu nax leen wallaay ñoo ko tey ndax yonent bi ne laa yuldaxul muminu fii joxrin marratayn ab jullit warta nangu sax am pax ñu fet yow dugal nga sa loxo ñu fet la ngay da ngay dugalal sa loxo yaa ko tey gis nga moo tax borom bi subhanahu wa taala bëgg ay jullit yoo xam ne dañuy ñor dañuy yeewu gis nga badar keroog li ma la ci nit ñi woon ñëw nañ gas nañ teen bi sol nañ seen mbalka sakk nañ teen ba ndax mbalka moom ñoo ko moom ñoo koy garde ak yeneen ak yeneen ci ay mawaqif yu lay wan ni maanaam saxaaba yi njàmbaarte giñ doon wane ci xare ak ñàkk a doyadal seen bopp wallahi ci ngay xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ci xeet wi comme ni ko yonent bu waxee sallallahu alayhi wa sallam borom bi mu ni bu leen doyadal fekk wa antumul aalauna yéen a fare kaw wallahu maakum xam leen ni yàlla mi ngi ànd ak yéen walan yatirakum amalakum yàlla mooy du ma leen xañ dara ci li ngeen doon jëf bi maanaa du ma fell du ma fell as lëf di ko nangu ci li ngeen doon jëf muy ay mbaax mbaax waaye dinaa leen ko fay yéen ñépp maanaam jamono bi nga xamante ni yaa ngi xare te xam ni yàlla mi ngi ànd ak yow yaa am doole wala doyadal sa bopp yëgal ni loo daj ci xare bi rek yàlla muy dinaa la ko fay walan yatirakum amalakum mooy du ma fell dara ci li ngeen doon jëf sunu borom ni bu loolu jàllee innama alxayaatu dunia dunduk addina gii ngeen nekk tey di wàññi ay 1800 ba mu jeex ñu wàññi ay 1900 di wàññi ay 1900 ba mu jeex ñu dugg ay 2000 te naruñu fekkee njeexintal ga sunu borom ni bu yeboo ngeen xam ni laaibun am pola wa lahwun ak i caaxaan rek laay ji mbokk yi borom bi wax na ko ay yoon ci alquran innama alxayaatu dunia laaibun wa lahwun wa zina wa tafaaxurun baynakum wa takaathurun fi l amwali wal awlaad borom baa ngi ko misaal ci taw bu wàcc naatal suuf si ñax mi na tëx ñu teg ci fan mu lax gooy nawet jeex ñax mu tooy ma soppaliku mboob wa ma alxayaatu dunia illa mataaw lguruur innama mathalu alxayaati dunia kama in anzalnaahu min assamai faxtalata bihi nabatu l ard mimma yakulu nnaas wal anam maanaam boo seetloo poñetum àddina mii ñuy xëccoo mbokk yi benn bis yonent bi dafa ànd ak saxaaba yi ba mu yàgg mu daal di romb aw bëy wala till gu dee ba médd ba tasaaroo yonent bi ne saxaaba yi kan mooy ñëw jàpp ci nopp bi kuy ñëw ma jaay ko li fukki dërëm saxaaba yi ne ah lii de wax dëgg yàlla jërul fukki dërëm mu ne ko ñëw ma jaay ko ko juróom saxaaba yi ne lii da jarub juróom mu ne waa koy ñëw ma jaay ko ko dërëm saxaaba yi ne ko waaye yonte bi lii kay boo ko jaayee dërëm sax kenn du ko jënd mu ne wallahi yéen a ngi jënd loo xam ne lii sax a ko ëpp valeur muy àddina gis nga àddina bu doon peser fa yàlla lu tolloog laafab yoo laafu yoo ban balance nga koy teg mu génne poids ba xoolal yoo ni mu tuutee aw laafam nga dagg ko kooku ban poids yow loo xam ne boo ko tegoon fii sax mën nga kaa bañ a gis ak bët yonent bi nee na su fekkoon àddina day peser lu tolloog loola fa yàlla kon yàlla du bàyyi yéefar muy naan kaasu ndox ci kaw suuf maa saqa minha kaafir sharbata maain adina mbokk yi dafay waraate hiya dunya taqulu bi mil'i fiha hadari hadari min batshi wa fatki adina ngoog de mboolem ñiy dund ci kawam mi ngi naan leen moytu leen ma saay rëkk dafa metti saay xët dafa metti صفاؤها كدر راحاتها سقم ها لا يستفيق من الأنكاد صاحبها lu neex naqari gaa ngi ca pe- pegg ba lu bees màggat gaa ngi ca pegg ba lépp loo xam ne sell na nëx gaag lënj gaa ngi ca pegg ba amul kenn ku ne ci àddina koo xam ni di nga mucc ci coonay àddina kon jaamu yàlla rek moo la fi jëg gis nga la wax kat wax naan ma hadihi daaru illa lilfana xuliqat ma hadihi daaru illa daaru midmar gis nga daa kër gii kër ak ràpp la beneen waay naan ko am waaluna sunu alal yi li dawil mirathi najmauha dañ koy dajale ba mat ñu ni ko yalbaa ndig ñu ñu war a doon wa duuruna sunu kër yi li xaraabi dahri nabniha dañ koy tabax pour mu gaaw màgg kër moom xalaatoo sax mu màbb ci sa kaw moom moom kay da ngay dee ba ko fi yooyu nag tekkiwul ni mooy yàccaaral bul ko wut déedéet kër gu baax sax nag daa jékku ci bi yéefar faf nag moom loolu sax la yent bi jàngale waruwaay bu baax dafa jékku sax ci yéefar faf soxna su baax kër gu yaatu waruwaay bu gaaw loolu dafa jékkul sax ci yéefar contraire ba sax mu baaxul ci yow nag waaye yooyu dafa war a nekk ay jumtukaay pour nga mën a jaamu sa borom mbokk yi àddina li muy wane ci kaw suuf su fekkee waaruñu jàpp naa ne dootuñ gaaw a waarati arabani dunia ka wafdayni kullama taraxala wafdun jaa ala ithriha wafdun benn waay nee na man dama dem ba buntu hôpital taxaw mu ne ma jaaxle lool mu ne ndekete àddina lii la ay liir la ñuy du dugal ci ay néeg ndax ñoom ñoo judd di génnee néew di yóbbu ca morgue ba mu ne man de gis naa doomi àddina yi ndeke ñaari mbooloo lañ mbooloo mi dañuy dee jëm armeel ya mbooloo mi di ñëwaat mu jeex soo xoolee ba ci biir nga xam ni àddina looy dàq sa moroom dàq na ko ba dab ko te jariñoowu ko looy dàq ku la dàq daw dàq na ko ba sonn te dabu ko te it saay saay la de day mbasaate de àddina day lalli di wore di mbase di naxe gis nga boo ko toppee di daw ba mu mbas la nag daal di tëm tëmbal la ci biir kàmb kàmb gi nangu lim la jotoon a jox moom àddina joxe ko keneen gis nga poste boo fi toog am na ko fa toogoon loo yore am na ku ko yore woon loo xam am na ñu ko xamoon gis nga booy dàq àddina ba mu mbas la nga ni këlbét tàbbi ci biir kàmb ak bàmmeel buñ la suulee àddina daf lay saisir nangul lim la jotoon a jox yépp dem joxi ko sa morom pour naxee ji ko ko moo tax mbokk yi siira faw ñu di ko jàng defarut ñu njëkk ñooñu ak niñ téye woon àddina ak niñ ko doyadale woon donte ñu ngi fiy dund ci ngay xam ni ñoom xamoon nañ ni rombukaay la jaarukaay la waaye du kër sax waay wallahi mbokk yi dee bett nañu bari am na ñu bare bare bare bari ñoo xam ne dee bett nañ te bu soobee yàlla daf ñuy bett ñun ñii ñun ñii ñëpp daf ñuy bett laa yatikum illa baxta muy saa muy dee te it doomu aadama mësul fekk ay soxlaam ci àddina déedéet fa ma qada ahadun minha lubanatahu moom kay moom saabu biy jeexee rek fa man taha araban minha ila arab moom kay soxla su jeex rek beneen ñëwaat ngay dàq looy dàq soo dawee ba jot loola gisaat leneen lu dul moom fëx lépp ay xusuuraat la àddina looy dàq ba dab ko da ngay seen lu ko gën nga fëxaat toppaat ca lépp ay xusuuraat la moo tax lépp loo ciy topp di ko suivre lu dul ak topp yàlla yëgal ni yaa ngi perte sa temps wallahi ñañu suul mbokk yi bu ñu dellu si waatoon fii ci àddina billahi dinañ xëccoo leneen lu dul li ñuy xëccoo ñun benn ràkka benn tasbiix yawman kaamil xoolal tey yaa ngi yendoo woor xëdd nga ba suur yaa ngi yendoo woor yaa ngi ci ron ventilo yaa ngi ci péex mi yëgoo sax lu xew wallahi am na koo xam ne boo ko dekkaloon tey nga ne ko kaay nga woor te doo xëdd te it ca naaj wa nga yeen doo taxaw te it bu dog jotee doo dog moom loo ko proposé dana ko jël parce que looloo ko gënal lu mën a am ci kaw suuf soxlaatu li ñuy soxla moom yére yi bëggatu ci parce que du ci sol dëkkuwaay yi bëggatu ci parce que du ci dëkk montre yi dootu ci takkati portable yi dootu ci wuyooti moom lenn la am lu ko amal énergie amal ko njariñ mooy ay topp yàlla kenn ci magi salaf yi day nettali ci benn téere mu ni benn waay dafa dem ci armeel yi mu ziyaare ba noppi génn ngëmmintu jàpp ko mu tëdd ci ron benn garab di nelaw nee na bi mu tëddee mu gént gis benn xaritam bu ñu suul xarit bi daal di koy wax ci nelaw yi ni ko yéen de yéen a ngi nelaw waaye ñun de ñaari ràkka yun jóg julli ko moo nu gënal àddina ak li ci biiram nee na mu daal di yeewu fekki ko feeñ woon ci nelaw xaritam la xoolal ñooñu tey ni ñu soxlaa aw yiw nga xam ne li ngay xëccoo lépp ñoom bu ñu delsi woon duñ ci bëgg te moo ne ñoo ko ñoo ko amoon de li lay wan ni soxlawuñ ko borom baa ngi wax ne gis nga yéefar yi fee dane law anna lahum ma fi l ard jamian continent yi ne ci àddina bi yépp boo dajale lim am cim koom nga may ko ko moom yéefar bi laftadaw bihi yàlla mu ni dinañ ko déposé ci suñ borom ngir yàlla jël ko musal leen ci mbugal mi xoolal bëgg a mucc ci mbug mbugal tax àddina bi yépp li fi nekk xoolal àddina bi ni mu yaatoo waaye pour wan la ni la ñàkk jaamu yàlla wóorul yàlla mu ni même buñ ko amoon li yaftadu bihi ngir ñu jox ma ko maa tuqubbila minhum du ma leen ko nangul xoolal fee dañ ko doon jéem yàlla mu ni moo ne ba leen ko joxoon ñu jéem ko de fee yàlla mu ni même buñ ko jéemee buñ ñëwee du ma ko nangu mbokk yi dañu góorgóorlu ci alal yi nu yàlla wër sa gël anfiqu mimma razaqnaakum sunu cër yi aqimu salata aatu zakat mboolem li nga xam ni borom bi sant nañu ko loolaa ñuy jëriñ ci àddina de laayibun wa lahu am pola ak i caaxaan wa in tuminu bu ngeen gëmee yàlla wa tattaqu ngeen ragal ko yutikum ujurakum dinaa leen jox seen ak pay wala yasalkum amwaalakum te duma leen laaj seen alal yi ba mu jeex tàkk maanaam du yàlla du ñëw naan la yee sa waay li nga am ci alal lépp indi jox ko lislaam yàlla mooy du ma def loolu de in yasalkumuha bu ñu leen laajee seen alal yépp fa yuxfikum mu diis ci seen kaw ñu saisir leen ah tabxalu da ngeen di nay su boobaa teyit génne gi yàlla yi jël ci seen alal as comp wa yuxrij adghanakum mooy génne nay gi ne ci seen biir xol yi bi maana yàlla mu ni bu ngeen gëmee yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ragal yàlla yàlla neen dinaa leen fay li ngeen jot a liggéey teyit seen alal yi duma leen ko laaj ba mu jeex suñu borom bi ni mu ñuy laajee wax dëgg yàlla laaj ni ku am yërmande la mooy anfiqu dépensel mu ne mimma razaqnaakum li nga jot a xool ko nga jël ci li nga soxla li ci des nga joxe ko te moo ne yàlla mënoon naa wax joxe leen seen alal yi anfiqu dépensé leen mu ne mimma jaalakum mustaxlafina fii alal ji nga xam daa am ku dee moo tax nga jot ci bu fi nekkoon ba da nga yow doo ci jot moom daa dee déplacé wu pour nga ñëw gis nga dee gi ak dund gi noonu la de gis nga dee gi ak dund gi alxayaat wal mawt ay xekam yu bari mi ngi ci gis nga àddina bii ñu dëkkee ñi war a dee bu ñu deewul woon ñi war a ñëw duñ mën a yegsi mbaa bu ñu yegsee duñ fi xaj gis nga teraanga yi ne ci loxo yii loxo ya ko yoroon buñ fi jógewuloon duñ ko bàyyi ba keneen di ko jël ndax kenn du joxe sa alal faw yàlla rey leen pour mu dem ci yeneen loxo gis nga xeeti doxin woowu mooy doxinu xakiim ah zu xikmatin baaligatin mooy sunu borom subhanahu wa taala nga xam ni doomu aadama lépp lu mu am rek na ko def ay jumtukaay pour am ngërëmal sunu borom sunu borom mu ni bu leen yàlla laajoon seen alal yi ah in yasalkumuha bu leen ko laajoon fa yuxfikum borom bi saisir leen nangu li ngeen am lépp mu diis ci seen kaw tabaxalu su boobaa da ngeen di nay ndax du baax ci yéen waaye wa yuxrij adghanakum yàlla mu ni li nekk ci seen biir xol yi ci mbañeel ci contre li nga xamante ni mooy njàngale yàlla ak yonenteem ak nay bëgg alal al adghan imam qataada mu ne yàlla daa xam ni alal dafa takk ci xol moo tax mu ne génne gi nga koy génne nee na yàlla daf la ciy setal qad aflaha man zakkaha gis nga wa dakara sma rabbi fa salla qad aflaha man tazakka borom xam-xam yi dañuy wax ni bokk na ci tazkiyatu nafs sellal sa bakkan mooy génn ci li nga am ci alal seetlul fu yàlla lay waxee ah jihaad leen bi amwaalikum lay wax wa anfusikum amwaal mooy jiitu anfus xam nga lu ko waral mooy doomu aadama li mujj lu mu war a mën a joxe mooy bakkanam joxeel sa doom ji joxeel sa kër gi joxeel sa alal ji joxeel sa nangam waaye joxeel sa bakkan moom fa fa nga mën a yem moo tax inna allaha shara min anfusakum wa amwalakum bi anna lakumul janna aay jooju ngay gis borom bi jiital anfus lu ko waral parce que fan la soxlaa bakkan baa war a jiitu même bu ci alal ji dee topp waaye yi ci des hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum sa alal ak sa bakkan borom bi subhanahu wa taala mu ni ha antum yéen a ngi nag tudaawuna ñi ngi leen di woo li tunfiqu fi sabilillah ngir ngeen génne ci seen alal yi def ko ci yoonu yàlla fa minkum am na ci yéen ñoo xam ni man yabxal dañuy nay naylu parce que yaa ngi calcul naan ah lii de bu ma ko dugalee ci jàkka ja moom damay ragal ni après mën naa am problème feet gi jub si de mën na ma bañ a am lu ma nangamee man de su ma ko defee sama doom xëy suba feebar fan laa jëm man lii est-ce que li ma am sax man doy na ma simple 1000 francs donc la 1000 francs fajut dara man sax mën ta faj sama soxla suñu borom ni fa min ku man yabxal am na ñuy nay naylu yàlla mu ni maa ngi leen di woo ngir ngeen jël seen alal yi dugal ko ci yoonu yàlla am ci yéen ñuy nay naylu asaya bo suñu borom mu ni wa man yabxal képp kuy nay naylu fa innama yabxalu an nafsi lay nay naylu ba sa kaw rek lay këpp gis nga alal ji war a génn wallahi mënoo muus ba du génn ba bañ ba bañ a génn gis nga la war a génn faw mu génn yow comme alal ji dana génn faw di nga ko joxe doo ko denc sa coffre-fort bi du génn yow comme dina génn dana génn kay fexeel mu génn fay am ngërëmal suñu borom da ngay gis doomu aadama war a def ci yoonu yàlla defu ca alal ja dem mu réccu waxuñu la jëlal sa alal yëpp nga dugal ci yoonu yàlla mbokk yi ñaata ci abwaabul xayraat yoo xam ne doomu aadama wallahi mën na cee njotee boppam ci sawara gis nga benn waay dafa dégg aaya ci alquran wa inna jahannama la mawiduhum ajmain jahannama yàlla ne yéen ñëpp fa laa leen di xaar laha sabaatu abwaab juróom-ñaari bunt lañ ko wutal li kulli baabin minhum juz'un maqsum mu dem ca marché ba jënd juróom-ñaari jaam mu ne yow yàlla xam nga ni ñii bi ma leen di jënd alal ji ma ko jëndee soxla naa ko yow yàlla xam nga ni lii ma def kenn forcé wu ma ci yow yàlla wóor na la ni xam nga ni tiit ak ragal ak bëgg a mucc ci sawara moo tax may jëf lii may jëf comme juróom-ñaari bunt la léegi dama bëgg jaam bu nekk nga fattalee ma ko benn bunt ma bañ faa jaar man mu daal di goreel juróom-ñaari jaam yëpp leen dem leen seen yoon xoolal xoolal yooyu yooyu jëf ak ñooñu ni ñu xóotee woon ay gis-gis parce que liñ leen di wax ñoom xam nañ lu mu doon xoolal Ousmane Ibn Affan radiyallahu anhu ci jamono juñ naan comme ceeb dafa manqué ci misaal nga xam ne réew mi ñëpp a koy wër nga xam ni commerçant loolu ko gën a arrangé parce que fa lay gën a jaayee prix bu baax Ousmane wàcc ay gëleem njëggam gëleem bu doon ci jamono ñu ne ay conteneur commerçant yi dëkk bi yëpp fàq kii naan fay naa la nangami million kii naan fay naa la nangami million waaye Ousmane kiimtaanu yàlla gi mu ngi sol yéreem toog ku ñëw ni ko fay naa la nangami million mu ni gis naa ku la gën a may fa mën a fay njëg de beneen waaye ñëw mu ne gis naa ku la mën a fay njëg de bi ñu demee ba commerçant yi fi nekk ñu ne ko ñun jaaxal nga na ñun ñoo fi nekk ci dëkk bi kan moo fay lu ëpp li ñu fay mu ni xanaa yàlla mu daal di woo ay ay góor ci saxaaba yi di leen kaay leen mu leen jël leen alal ji ngeen wasaareel ma ko ci julli di nekk madina yépp ci wallahi loo xam ne mbokk mi bu ko jaayoon ay millions yi millions lay doon ci waxtu woo xam ne ñu dañ koo soxla maanaam doomu aadama fii mënut di génne alalam di joxe te du am contrôle na yëg ni ngëm gi des na ci xolam parce que alal dafa bokk ci yi ñaatee ngëm ci xol alal léeg-léeg nga dégg ku naan ah man bu ma yàlla joxe dinaa def nangam dara doo ko def ndax wa minhum man ahada allaha lay naa taana min fadli lana saddaqan am na ñoo xam ñu ngi naan yàlla bilaay boo ñu joxee nangam lana saddaqan yàlla mu ni bu leen ko joxee baxilu dañuy nay duñ ko def de lu bari ci nit ñi tey yow nga am ñaar téeméer mënoo joxe yow boo amee junni looy joxe dara nga du joxe dara doo ko joxe parce que nit ki ci séraar yi lay tàmbalee doo ko yegg ci xibaar ya tey jii mbokk yi ñaata ci ay nit ngeen xam ma xam ko ñu xam leen ñu yore ay milliards yoo xam ni ñoo ko moom sàccul ko defuñ ko dara sax ñoo ko moom xam nga ko sàcc moo ñu sax alalam loolu moom bëggeesu ko ndax loolu moom jullit daa war di rusulu sax mu dugg sa kër ma profité ci waxaale leen ci wallahi gis nga yenn xeeti alal yi ñuy séddale te alal yu lewut la nga xam ko gis nga bu duggee sa kër mën na laa yàqal ci ay jaamu yàlla loo xam ne doo xam fu mu bàyyi ko lu lewut la jullit warut a nangu mu dugg këram parce que lu lewut daf lay perte loo énergie sayr ibne abdullah tasturi nee na man akala al xalaala ataa allaha saa am aba gis nga boo saa am aba boo lekkee lu lew énergie topp yàlla ngay am boo sawaree da ngay topp yàlla boo sawaree da ngay topp yàlla parce que daf lay fournir énergie waaye gis nga boo lekkee lu xaraam loolu day dox sa diggante mën a topp yàlla ñaata ñoo yor ay milliards denc ko ci ay banque wala muy wundeelu ay julit di xiif ñii di mar ñii di feebar di dee wallahi yàlla dana ñu ko laaj ñun ñii dama wax milliard parce que moo gën a kawe waaye ak ñun ñii ñun ñii benn ci man ak yéen da ngay gis koo xam ne yor na tuut mbokkum julitam feebar di bëgg a dee tuutam soosa ma ngi koy xaaree leneen loo xamante ni sawaay moo gën a yées moo gën a ñàkk solo gis nga yooyu nekkul woon dund saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain déedéet yonent bi daa julli fajar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sëlmal rek ni bëri dugg ci biir néegam xam-xam ni aj yére yi am lu mu génne daal di koy jox bilaal ni ko dama séddalil ma ko ñu ni ko lan la mu ni ñetti dërëm la woon yu ma fanaanoo te waroon koo joxe depuis démb may tiit yàlla xisaab ma ca loola xoolal ñooñu bët bu xóot biñ doon xoolee alal ji nga xam ne yàlla daf la ko jox te alal du dara ndeysaan gis ngeen wolof yi ni mu maanda da ko tuddee wërsëg waaw wax nañ dëgg de fii dañuy wax rob ak i armel ah ak i bàmmeel boo demee ci àll ba ay sët la ñuy wax ay sët ay sët mooy fa ñuy suul gis nga wërsëg mooy loo xam day ñëw wërsëg ya bu ñëwee ñu teg la moom day ñëw wërsëg ya ànd ak mbooloo bu wëree sëg ya daal delluwaat pour mu dem keneen moomi ko xool alal ji la yàlla dénk nga dem ciy génne di joxe te xoolal li gën a kéemaane mooy gis nga sarax est-ce que xam nga ni sarax doomu aadama dina yëkkati ci alalam mu saraxe te yàlla rek tax sarax bi di yéeg ndax xam ngeen yàlla ilayhi yasadul kalimu tayib wal amalu saalix mu ne yarfauhu yàlla mu ne jëf yu baax yi maa koy yéegal sarax bi day yéeg ba jub asamaan fekk ponkalum musiba muy wadd si ci sa kaw yonente mu ni sarax bi di mbëkkanteeg moom léeg-léeg sarax bi da koy mbëkk ëpp ko doole sànni ko fële musiba ji doo ak si ci sa kaw léeg-léeg wa musiba ji day am doole sarax bi tamit am doole ñoom ñaar ñuy mbëkkante ba yowmal qiyaam léeg-léeg musiba ja mooy ëpp doole sarax bi waaye yonent bi neen sarax bi dana ca fell tuuti su ko defee gis nga bu yegsi ci yow doos ba mu amoon ca musiba ja du ko am bu yegsee ci yow sadaqatu sër tutfiu ghadaba rabb wallahi day fegal nit ki ah merum suñu borom te it yàlla mooy fayee allahu akbar gis nga borom bi fii lay commencé di fayee ci adduna yéen a ngi fàttaliku ci waxtaan wu ñu fi defoon ci al ihsaan benn borom xam-xam day nettali ma ne fii ci saoudia dafa am benn maire boo xam ne yàlla li mu ko wër sëgaloon mooy ay nag ak i giléem yu demee noonu muy ratt di maye di jox nit ñi ñuy naan ngir yàlla mu ni benn nawet maire bi di dox ci pegg canal yi rek tarxiis fakkastalu muy daanu ci biir canal bi léegi bi mu daanoo ci biir canal xam nga moom dee ci topp moom parce que canal ndox mi day dem nee na fekk am na benn loñ bu lonk nii rek loñ gi moo lonk ndigg li léegi maire bi daanu wut nee na maire bi am na fa ñetti fan ci ñetteelu fan ba ci la ko benn waaye romb dégg muy onk xam nga boo sonnee dem ba xiif nga mar ba di onk nee na waa ji daal di yërndu seen maire bi ñu jàppoo ko ñu génne ko biñ ko laajee ñaata fan laa mu ni ñetti fan la fa am gis nga ci ñetti fan yi nee na waxtu wi mu daan séddale soow saa bu jotee kaasu meew ñëw xamul na ko ko doon andi nee na li mu fa nekk lépp loolu la doon lekk lii ci xabaar yi ñuy dund la ñun ñun ay nit yu ñuy dundal ngir war nañ la borom bi subhanahu wa taala li ngay jox da yàlla da koy delloo siwaat maa naqasat maalun min sadaqa gis nga sarax yonent bi nee na musul wàññi alal ñun dañoo foog ni boo yoree 10 000 nga génnee 2500 bi sarxe ko 7500 moo ci des déedéet wallahi 10 000 la des boo sarxee 10 boo yoree 10 000 nga sarxe 2500 desul 7500 de 10 000 moo des yow kay yaay gis ni 7500 mooy yow nag sax yow compto parce que yow kenn wàññi loowu la yàlla mooy wàññi de 10 000 moo des ndax yonent bi moo wax dëgg de maa naqasat maalun min sadaqa alal ji wàññeekuwut parce que da nga cey génne sarax mooy dara wàññeekuwut li la koy wan mooy di nga gis yàlla barkeelal la li nga yore barke bu tolloog 2500 maa naqasat maalu min sadaq doomu aadama bu demee ba yowmal qiyaama bokk na ci li ko yàlla yi xittilee alal ji mu amoon di ci sarxe fi sabilillah sarax bi day soppaliku comme parasol ñëw tiim ko allahu akbar mbokk yi sarax yi am na solo de ak ka am solo te saraxe boo xam ni bi nga koy def yaa ngi koy nëbb di ko log-logal ba loxob ndeyjoor bi day joxe ba noppi ñu ne loxo càmmoñ lu loxo ndeyjoor joxe mu ne àlluma ci xam man daf ma kaa wana yow xoolal xool xoolal misaal boobu yow koy nëbb ba nëbb sa bopp yent yàlla bi ne na koo xamee dafa saraxe te fekk bi muy saraxe li muy saraxe loxo ndeyjoor baa ngi koy nëbb loxo càmmoñ yow mi moom ñaari loxo yépp benn loxo bi di ko nëbb ba ci des kooku di nga ko wax keneen yonent yàlla bi ne kooku bokk na ci juróom-ñaar ñi nga xam ne bu ñëpp tàngee yowmal qiyaam yow yàlla da lay keral mbokk yi sunu alal yii nañ ciy dimbalante sunu benn benn yii gis nga ñun ñii fii la ñuy toog naan ah ñi yore ay milliards naan ko mooy li ma wax sànq ñun ak ñoom dong nga yem keese ñoo yem kenn ku ci nekk yàlla ma ngi lay àttee ca la nga tool gis nga sa junni bi nga yore sa 1000 francs bi nga yore sa 500 bi nga yore am na koo xam ne benn 100 francs boo ko ci joxoon loola moom doy na ko gis nga am na koo xam ne 100 francs bi nga ko jox mi ngi toll ak borom millions yi may benn waay 500000 100 francs yi loolu lay toll parce que loolu la ko war a fajal ndax kaasam ndékki bii mu war a suukar te amul lu mu ko suukaree kooku suukar su mu ko suukaree fi ne moo gën a nekk farata ci moom di am ay 500000 ñun ak ñoom dong ñoo yem talewul leen de kiif kiif doomu aadama saa bu demee ba li mu am bu ci mën a joxe léeg-léeg du mën a joxe ñàkk wallahi mbokk yi saxaaba yi léegi dañ doon gën a mënte seen bopp defe naa ci waxtaanu la nga xamee jigéen ñaa ko moomoon ci alqabidatu ala aljamar allahu akbar kenn ci magi salaf yi nee na benn waay dafa génne azaka jox ma ni ma demal madina nga xool kan moo gën a ñàkk maire bu gën a ñàkk nga jox ko ko nee na ma ñëw ci dëkk bi di wër di wër di wër ba am ko ni ma kër gii moo gën a ñàkk effectivement ci ñàkk la bokk mu ne ma fëgg bunt bi benn jigéen daal di ñëw bi mu ñëwee mu ne ma lan la ma ni ko dafa am ku ma jox azaka nee naa xool ki gën a ñàkk ma jox ko ko mu ne ko man gënuma fay ñàkk rek ndax am na ku ma gën a ñàkk kii ma taqaloon moo ma gën a sonn kon demal nga jox ko ko waa ji nag dafa yéemu ci yàlla ndax kooku ci ñi gën a ñàkk ci dëkk bi ndax waa dëkk bee ko ko wax waaye moom préféré na mbokkam mi ko gën a ñàkk mu jël xoolal ñun ni ñuy soxlaa ñu nga xam ne bu doon ñu ne doo ci sédd sax faf doo ci sédd kenn kon mbokk yi ñu xam ni li nu yàlla jox sarax yii léeg-léeg nga ma dégg ma dégg kuy kuy kuy yalwaan di wax wax yu am solo sarax dina fayal mborom musiba ak balaa xaw ma wax yu am solo wax yu tawxiida la nag mokkalu ma ko nag waaye dégg naa ñu koy wax wax yu wax yu tawxiida la kàddu yooyu xaw ma ku ko fent waaye loola mu wax ma mën naa dugg ci njàngaleem pas-pas moom doomu aadama bi lu mu bari la bari la fii la koy bàyyi lu mu néew la néew la néew la day dee loo am lu mu bari bari bari bari fama tazawada mimma kaana yaksibuhu ah siwa xanuutin lim doon am lépp ci alal ba muy dee yóbbaalewu ci lenn lu dul xanuut muy gëtt ga ak mbubb mañ ko sàngee ay daal sax solu mbaxana sax solu montre ba ñu tekki ko jaaro ya ñu tekki ko ah simis yaag kos yaag karawaat yaag yépp fi mu ko bàyyi dara doo ko yóbbaale gis nga mbokk yi li nga moom dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li nga yóbbu àllaaxira li nga joxe mu dem ñàkk nga ko waaye li nga joxe nga xam ne moom lay xaar yàlla mu ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah gis nga lu ngeen déposé ci poste bu wóor bi yàlla mu ne bu ngeen ñëwee fekk ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin poste bu wóor bi lu ngeen ca posté ci aw yiw tajiduhu inda allah ah ñu defam ñu ba mu ne huwa xayrun moo gën de wa adamu ajran te it bu ñuy fay moo gën a rëy gis nga de borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ni seen alal yii day bu ngeen ci lebaloon yàlla man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan lu yàlla dayee alal moom mi mayee alal waaye jaamam yi la mbokk yi unzuru ila hada saxaabi aljalil abi dahdah gis nga mu déggee loolu dafa ñëw ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ni ko waaw a yàlla day leba mu ne ko waaw waaw abu dahdah sa borom yàlla day leb de mu ne ko moom bu lebee fu mu koy jëmee mu ne ko xanaa ci jaamam yi day leb pour ñu joxal ko jaamam yi abu dax dax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow de xam nga sama tool bi ñu koy wax beer xaa benn tool la woon boo xam ni dafa sës rëkk ci dëkk bi tool bi mu ngi la ko rëyal génn xëyatu rëy goo xam ni tàndarma yaa ngi meññi benn xeetu meññi goo xam ni ndox maa nga neex neex goo xam ni mu ne yow yonent bi xam nga ci dara ndax léeg-léeg fa ngay jaar di naan mu ne ko tool boobu laa bëgg ma sarax ko jox ko yàlla akub yonentam allahu akbar fekk moom tool boobu mooy li ëpp ci lim am ci alal am na yeneen waaye boobu moo tax alal ji ñuy wax waaye mbokk yi li gën a li li li gën a bomb ab xol mooy dafa dugg si ci biir tool bi fekk doomam ju góor muy yóotu benn car di dagg mu dóor ko bàyyil bis ni ki tey tool bi moomatuñ ko xale bi loolu mu doon dagg da ko koo bàyyiloo ne ko moomatuñ tool bi kan moo moom tool bi mu ne ko jaay naa ko yàlla ak ab yonenteem mu ñëw fekk soxnaa mi ngi ci biir tool bi xoolal xoolal jigéen ju njar ci ragal yàlla mu ne ko ah tool bi da jaay naa ko kooko jaay mu ne ko yonente bi laa dégg muy jàng man alladi yuqridu llah qardan xasanan fa aqratuhu llah soxna si ne ko kon nañ buub suñu bagage génn mu ne ko buub déedéet bagage yi sax bàyyi ko fi nañ dem suñu yoon bi muy génn man la bagage yi nga xam xam nga lu bokk ci tool bi soxna si ne ko kon xoolal kooku ni mu déggee ndigal man damay wax ni ñaar ñii wallaahi léeg-léeg da ngay da ngay hésité sax kan moo ci gën a baax xool kii yar nañ ko ba moom bi ñu ko waxee tegu ci baat ne nañ buub suñu bagage génn kenn ko déedéet bagage yi nañ ko fi bàyyi nañ dem suñu yoon yooyu nettali wuñ ko rek pour nit ki di ko déglu di ci yéemu déedéet waaye nit ki di ciy jéem a natt boppam wallahi ba tey am na nit ñuy dund loolu am na ñu koy dund de am na ay nit yoo xam ne léeg-léeg mën nañ yëkkati seen dépense bopp joxe ko parce que yëg nañ ñu mën na ñëw muñ tey te kii mënta muñ moo tax suñu borom mu ni ha antum yéen a ngii nag haula yéen laay waxal te gis nga façon waxin yii façon waxin yu xóot la ci ci luxa ci luxal arabiya ha antum ba bare ni haulaay ndax benn bu ci nekk li ngay liggéey loolu la sa morom di liggéey eh kaay yow mii laay waxal xam nga façon waxin boobu saa bu ko olof waxee rek waxin la moo gën a xóot eh kaay yi kese ha antum yéen a ngi haulaay yéen laay waxal tudaaw na ñu ngi leen di wooli tunfiqu fi sabilillah ngir ngeen dépense seen alal ci yoonu yàlla fa minkum man yabxal am na ñoo xam ne ñu ngi nay naylu suñu borom ni wa man yabxal kuy nay naylu afa innama yabxalu ala an nafsi nay naylu gi ci sa kaw rek lay këpp wallahu yàlla alxani mooy ku oomal ki allahu akbar milliards yiñ dara compté ba àddina sa soo ba tey fa mu doon jóge ba dara ba tey dara jóge gu fa yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam ba yàlla sàkkee àddina ba tey magasin ya muy génne di joxe ba léegi xott jóge gu fa xoolal loolu magasin yi xéwali suñu borom di génne fa mu tibbee boo demee xott desu fa xott jugu fa maanaam mi ngi mel ni da nga koo teppi bi nga dikkaatee fekk mu mel na mu meloon sunu borom moom mooy ku oomal ki da ngay dégg ñu naan diw de dafa oomal déedéet loolu njuumte bu rëy rëy rëy la ëpp na di wax oomal oomal benn melokaan la ci melokaani yàlla yi oomal mooy du ko am alal de oomal mooy koo xam ni ñàkkoo dara te soxlaaloo kenn dara loolu mooy oomal boole leen ko ci alfaadun tuxaalifu sharia wax naa ne am na baat yu ñu olof yi di wax ay diw daa oomal ak ay maam yàlla ak baat yu bonangoog yoo xam ni saa boo ko waxee yëgal ni yaa ngi yàq sa pas-pas diw daa oomal yëgal ni kon jox nga ko melokaanu yàlla ndax oomal mooy ku ñàkkul dara te soxlaalul kenn dara wallahu huwa alxani moo tax alxani min asmaillahi alxusna wa min sifatihi aydan mu ne wa antum alfuqara yéen da ngeen a ñàkk yaa ayuha annaas yéen nit ñi antum alfuqara ila allah yéen ñëpp da ngeen a pauvre wallahu huwa alxaniyu alxamid yàlla mooy ku oomal ki ku am ki wa antum alfuqara sunu borom ni yéen da ngeen a ñàkk te it lii ñu leen di sant ci joxem alal moog liñ leen di sant ci jihaad fi sabilillah moog liñ leen di sant ci topp yàlla wa in tatawallaw su ngeen ko lànkee def yastabdil qawman gayrakum yàlla mu ni ma andi fi ñeneen nit ñu dut yéen summa laa yakunu amthalakum li ngeen doon bañ ñoom ñu nangu ko aaya jii de mbokk yi bu nu jógee jàpp naa ne mat nañ koo bàyyiwaat suñu xel donte alxuraan lépp dafa war a des ci ñun waaye ñu ciy bàyyi xel li yàlla bëgg ci ñun subhanahu wa taala suñu borom dee na buñ ko defut yastabdil qawman gayrakum dinaa remplacer yeneen nit yu dut yéen summa laa yakunu amthalakum duñ mel ni yéen ndax li ngeen doon bañ ñoom danañ ko nangu yàlla borom bi musal ñu ci ñi nga xam ne dañuy lànk santaane suñu borom ba suñu borom di leen wuutalee ñu leen gën a nangu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu tàggatal nu ba li ñu yàlla war sëgal lu mu néew néew néew néew néew ñu am muñu man ci nuqi di joxe alal dafa takk ci xol ci buntu bu mel nii laay profité occasion wane ni gis nga ñi bëgg mbaax du ma wax ñu am alal de parce que mbir mi ajuut ci am alal ñi bëgg mbaax ba tey ñu ngi bëgg mbaax am na suñu mbokk moo xam ni jazahullahu xayran xamuñu ko sax xamuñu ko man mii di wax xawma ko ci loxo la jaar jaar ci loxo yegg si fii génn na ci alalam loo xam ni man gisuma ko waaye am naa yaqin ci ni lam génne bari na ba àgg ci lool sax lool taamu ci alal jooju nañ ko ci defal ay ndogu te taamu ci ay barab barab ya danaan yii nañ ma ko defal fee yii ñu defal ma ko fee yii ñu defal ma ko fee am ñett yoo xam da koo taamu ci daara sunu daara jii ca la bokk am naa yaqin ci lam génn ci alal bari na ndax fan ko doon jëlee la ma gis ak lañ ca bind la ma gis ñu bind ko su dee saabat naxuma lam génn ci alal bari na ba àgg ci lool sax lool wallahi dama jaaxle keroog yàlla seede na ko keroog bi ñuy dars bi ñu mujjee am fii tafsir defe naa ci biir dars bi lañ ma woo mbokk ma ne lañ jot bi ma demee wuy ji fan la signé loo bind loo ma fa la sama bët tegee bu dee saa bët bi fuluwut lam gis waa ji génne na ci alal lu bari lu bari ba jéggi dayoo sax ba jéggi dayoo laax ca la ma xamoon man la ma ak la ma doon foog mu wóor ma ni kon tey li yàlla man fastabiqul xayrat di jëkkante leen nii wutal leen ma ko tegat di ci taamu naa nañ ma ko defal ci barab sàngam am na ñuy góorgóorlu de am na ñuy góorgóorlu xoolal lu mel noonu tey tey mbokk yi nañu ànd ñaanal ko te yokk la ko tiyaaba yokk la ko tiyaaba xoolal lu mel noonu nga génne ko ci sa alal muy nga am tiyaaba yi génne nga sar ko ci sa alal am tiyaaba yi sarxe nga joxe ko ci weeru koor am tiyaabay weeru koor nga joxe ko mu nekk ndogu am tiyaabay ña ko lekk gis nga alal ci boppam mën naa fegal borom safara comme ni nga ko mën a tàbbalee sawara alal mën naa fegal borom sawara comme ni mu ko mën a tàbbalee sawara liñ jotaam mbokk yi nañ ciy góorgóorlu te it nag ñu xam ni li ñuy tuddee sux muy nay mooy suñu feebar yàlla nag ne noo ma yuq suxa nafsihi gis nga ku yàlla ñuqatil nay gi ne sa xol bi génne ko ah fa ulaayka hum muflixuun yow moom yow nga xam ne texe nga yow te deewa boo nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yubarika fi amalina wa an yubarika fi amarina wa an yubarika fi dhurriyatina wa an yubarika fi ilmina wa an yubarika fi ibadatina wa an yaqina shar al a'da'i والشيطان وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين